bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-daalliin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 ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen di di nuyu kilifa diine yi fi nekk ci senegaal ak kilifa aada yi yépp di leen nuyu di leen baal àq te leen baalu àq di sant yàlla ci diine lislaam bi nga xam ne yàlla indil nañu ko waaye yàlla wax ci alquran la in zakartum la in sakar la in zakartum la azidanakum zakartum la yàlla wax mu ne su ngeen sante ma dolli biñ sante mu dollil ñu tariqatu tijaan ñu santaat mu dollil ñu faydatu sa ibrahim lépp nekk ndollal ci biir ndollal bind nañu ñu nekk ay jaam mu bind ñu ñu nekk ay jullit waaye mu def ñu ay tiijaan waaye ca gannaaw bu mu ñu defee tiijaan mu def ñu ay taalib Mawlana Seyd Ibrahim Niass radiyallahu anhu nga xam ne lislaam dafa am ñetti maratib yoo xam ne yàlla daf ko wàccee ci moom muy lislaam liimaan ihsaan ci hadis bu siiw ba nga xam ne Seydina Omar nettali na ko nga xam ne Jibril bés mës naa ñëw toog te kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko laaj ma mbir islaam ak mbiri iman ak mbiri ihsaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam soloo ko ñetti mbir yëpp Cheikh Ibrahim ci xam-xamam bu kawe bu màgg ba mu fexe ba leeral ko benn bu ci nekk ana lan mooy feeñ waayam ak luy ay manasilam ci zaahir ak ci baatin ak ci baatinu baatin loolu yëpp di ay ndollal yoo xam ne benn bu ci nekk dafay jëriñ jullit bi te daf koy gën a éegee ci maqaame yi nga xam ne moom lay yuutu wala mu dëtmal ko wala mu koy séntu ci waaye nag ni yàlla bindee lislaam moom mu wàcce yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk soppeem nekk nga xam ne mooy ci tax yàlla bind lépp yàlla óolu ko lépp lu muy jox jaamam yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la koy jox mu séddale ko moo tax yonent boobu ne al muhti wa ana al qaasim yàlla mooy joxe waaye man maay séddale joxe googu nga xam ne yàlla moo koy joxe yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di séddale loolu ci la mbir yi nga xam ne moom lañ jot yëpp ci àddina tey muy lislaam bii ci lañ ko jotee lislaam nag dafa nekk loo xam ne diina juñ gërëm la yàlla ci alquran mu wax inna diina indallaahi islaam ba waxee inna diina indallaahi islaam daf na diine fa yàlla mooy lislaam képp koo xam ne nag jàpp nga beneen diine bu islaam nga diinoo ko yàlla du ko nangu kon ñu sant yàlla ci lislaam boobu mu ñu may waaye bi yàlla bindee lislaam mu nekk diine ju leer nekk diine yërmande dekk diiney jàmm yàlla dafa bind lu jiitu lislaam di ñëw ci suuf àddina bii mu bindoon suñu maam aadama alayhi salaam waaye seytaane mi nga xam ne moo fi jiitu aadama yàlla bindoon ko mu nekkoon jaamab yàlla bu doon jaamu yàlla nekk jaamab yàlla boo xam ne jaamu yàllaam ngi foo ko natt ci kawe weesu na fépp foo xam ne natt nga fa sepre sepre mooy lii ci sa loxo rek fépp foo xam ne natt nga fa lii ci kaw suuf rek iblis moomu julli na fa su jotal na fa yàlla junni ak soog ko toxul feneen kon loolu boo ko xoolee ci ab lim jéggi na dayo yàlla mi nga xam ne ci mbaaxam ak màggam ak kawe bëgg na yërmande ju gën a kawe bëgg na yërmande ju gën a dolleeku mu diisoo ak malaayika yi ne leen dama bëgg bind sama xalifa ci kaw suuf malaayika yi na ko déet kooku bu ko bind ndax kooku du fi nekkee lu dul tuur deret ah ak yàq suuf ak di la moy di la di la bokkaale yàlla ne ko xam naa ci kooku lu ngeen xamul xam naa lu ngeen xamul ci la yàlla bindee aadama ba mu ko bindee mu sujjóotloo malaayika yi sujud usjudu li malaayika fa sajudu ilaa iblisa ñu sujudloo malaayika yi malaayika yi sujud waaye njëlbeen ak sujud gi nag balaa ñuy sujud dañoo njëkk a bañ ñoom ñëpp waaye bi leen yàlla taajee xamal malaayika yi jox leen jox ko xam-xam xam-xam yëpp jox malaayika yi mu lottuloo ci mu xam-xam bi mu jox aadama mu lottuloo ci malaayika yi xamuñu ko moo tax ñoom ñu wax subhaanaka laa ilma lana ilaa maa alamtana innaka antal alimul hakim ñoom yaa wax yàlla ne ko ñun yàlla daal xamuñ dara lu dul loo ñu xamal bi leen yàlla waxee di leen laaj dama leen waxee ne yéen dama leen di laaj turi gaa yi euh, soloo leen ma turu gaa yi gaa yi ci lañ ci lañ ko waxee ne ko xamuñ dara lu dul tudd sax sell xamuñ dara lu loo ñu xamal yàlla moomu nag ba mu waxee iblis iblis bañ mu laaj ko lu tax nga bañ mu ne ko xamoon nga ci ëzal ne di ma di nga bind aadama di ma sant ma bañ waaye nag du ma sujjootal aadama ndax yow yaay sama borom du ma sujjootal sama morom ab ndax yow laa war a sujjootal yow sama borom mu lay lay wu doy waar lay wu do lay wu lay wu lay wu dëng waaye lay wu jub ci xelam yàlla na ko nag li nga wax soo ko déggoon rek problème du am boo nangoon ne man sab jaam sama sama jaam nga yow boo nangoon ne yow Iblis yow sama jaam nga kon lu ma la sant rek danga koy def lu ma la tere nga bàyyi ko daal di ko rëbb nag dex ko péyam mu wax yàlla ne ko maa gën aadama ndax yaa ma bindee safara moom yaa ngi ko bindee ci suuf nga gis lay woowu lay ci xel rek boo xoolee safara am na njëriñ ci benn boor su fekkee ne yaa ngi koy jëriñoo ko togg waaye bu ñu xoolee résultat yi ay njëriñ njëriñ seen wàllu njëriñ suuf soo ko joxee benn mu indi la téeméer wala junni safara boo ko dendalee dara waxuma sax nga jox ko dara waaye loo dendalee ci wetam rek mu daal di ko seer kon ñoom ñaar bokkuñu ay njëriñ waaye loolu doyut iblis moomu bi ko yàlla dàqee daf koo rëbb ne ko nag yaa ngi noonu rëbb naa la ba péncam yàlla léegi nag yàlla booyal ko jox ko liberté yàlla bi mu bi mu dàqee iblis daf ko dàqaale lépp lu mu ko may soxlaatul daraay iblis gis nga xam-xam bi yàlla xamaloon iblis mu amoon ko doon ko jaamoo yàlla xam-xam boobu sax yàlla da ko supprimer walla xam-xam yooyu nag ci la ci la satanisme yi commencé jëndee jële seen xam-xam yi ci la shayatin yi jëlee seen xam-xam yi bañ ñi nga ñi nga xam na sax dañuy jaamu yàlla te sellal luñ seen jaamu yàlla gi ba ib ba seytaane yi nga xam ne yàlla ba leen iblis reconnaître kii na recruter nañ leen convaincre leen ci boppam ba ñoom ñu nekk ay seytaane ndax yàlla bind na seytaane jinne bind na seytaane nit seytaane yi nga xam ne ay jinne lañ dafa am ay rôle yu ñuy liggéey ci àddina bi seytaane yi nga xam ne ay nit lañ am ay rôle yu ñuy liggéey ci àddina bi waaye ñoom ñépp nag iblis mooy seen sëriñ moom la ñuy moom moo leen recruter léegi nag boo dee jaamab yàlla bu gëm yàlla topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla xamal na ko Iblis xamal ko capacité ak dooleem ak mission bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko charia bu leer jox ko diine ju leer ne ko nag ñi nga xam ne ñoo jëm ci man fii mooy seen yoon wi nga xam ne ci la ñuy aw bu ñu bëggee delsi ci man moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi l'islam indi charia rëddal ñu ay frontières waaye iblis tamit moom it indi diinaam indi shariaam indi ay frontière ndax moom opposé fa opposé yàlla lépp loo xam ne nag yàlla bindoon na ko bi mu dàqee iblis te iblis laal ko yàlla daf koo dàqaale moo tax boo fekkee njaalo ak sëy amul différence waaye lu waral njaalo parce que yàlla iblis dafa mës a laal sëy yàlla dàq koo dàqaale ko loolu moo waral booy sëy te amoo ndigal rek dangay gis ñu tuddee ko ñu def ko njaam booy sëy ci am ndigal da gis ñu tuddee ko ab sëy te boo xoolee benn jëf la benn melokaan la ci ñaari fànn yooyu waaye bii lu tax mu nekk njaalo bii lu tax mu nekk sëy bii dafa am ndigal bii amut ndigal iblis nag léegi bi mu ñëwee di tuub yàlla bam ba aadama di tuub dafa wax na rabanaa zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna la nakkoona la min al xaasirin rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana la nakkoona la min al xaasirin yàlla mu ne yow yàlla tooñ nañ suñ bakkan boo ñu jéggul danañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy way perte yi yàlla moo sax aadama baat yi nga xam ne moom la aadama tuubee moom la ko wax mooy wa talaqa aadama min bi kalimaatin yaa ngi dégg yàlla sa ay baat aadama ci la tuubee iblis dem créer ay baatam pour nga wan nga xool ni mu opposé woo yàlla ñëw tuub yàlla bañ nangu lu ko tuub léegi nag moom mu opposé wu ak yàlla nekk ennemi yàlla gis nga nooneel boobu iblis noona woon noona yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yi yàlla wàccee ne leen ñuy def seen mission ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw indi l'islam iblis ba léegi mission bi mu yore woon di ko doxal moom du retraité moom du fi jóge parce que yàlla def na ko rëbb naa la ba keroog bésu daje ba danaa la dugal safara yaa képp ko ànd ak yow nga gis seytaane seytaane moomu nag dafay liggéey liggéey boo xam ne ci jamono bii ñu toll nii tey liggéeyam dafa fës ay résultat am dafa bari jëfam dafa leer ñi nga xam ne ñoo ànd ak lislaam ànd ak diine lislaam ànd ak yonentu Yàlla Muhammad sallallahu mu am ay yenn càggante càggante yoo xam ne dañ koy négliger te fekk na iblis foofu mooy ay bunt yu muy jaar pour convaincre nit ki pour détruire ko pour yàq gëm-gëmam pour yàq imaanam pour yàq li nga xam ne mooy leer gi nga xam ne moom la ko yàlla jox moo tax jamono bi ñu toll ni tey da ngay gis koo xam ne day jaamu yàlla dana jaamu yàlla ba pare te du rendre compte ne moom jaamu na yàlla mën ngaa julli ba pare doo rendre compte ne yow est-ce que julli nga doo am benn yëg-yëg boo xam ne ci biir julli gi diñ ci fàttaliku ne man du may julli ci waxtu sàngam yëg naa ne maa ngi julli mën ngaa julli ba pare doo sentir doo am fenn ci biir julli gi fa fàttalikoo ne man de du may julli ci waxtu wi instant du may julli fàttaliku naa ci biir julli ne waxtu yi maa ngi doon bàyyi xel na maa ngi julli dangay gis waxtu woo taxawalee julli rek nga gis iblis ñëw taxaw indi la ay proposition xalaat yoo xam ne dafay këf sa xel mi daal di dem ak moom indil la yeneen xalaat génne si ci julli gi su fekkee ne yow taaliba ci jàng ba xam ne da ngay wirda soo ba éenee na yaa ngi laazim pas-pasu éene bi lay njëkk a ba yow booy wax a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim sax fekk moom pel na sa làmmiñ bi ba jël a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim bi wax ko ci sa làmmiñ ndax capacité bi si seytaane am nit ñi def dafa jaadu ñu xam ko moom nag recrut moom mu doon def bi muy recruter ay élément am daf leen da iblis yàlla daf koo jay ba muy wax pexeem seytaane daf na inna kayda seytaane kaana daxay fan pexeem seytaane lu doyee di la waaye ba muy wax pexeem jigéen inna na kunna azimun la wax daf ne pexeem jigéen lu màgg la kon nga gis iblis moomu pexe yi nga xam ne iblis am na ko di ko jax-jaxalee ñi nga xam ne seen imaan dafa dëgërul ñi nga xam ne dañoo amul pas-pas bu wér li muy def mooy njëkk a jax-jaxal jax-jaxal xol la lay indi mooy min sharri haasidin izaa hasad wa min sharri nafaas min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad da lay indi ay jax-jaxal te iblis dafa am ñoo xam ne ay ay élément iblis lañ am ay nit ñoo xam ne ay élément iblis lañ am nit ñoo xam ne am jinne yoo xam ne ay élément iblis lañ dafa am ay jinne yoo xam ne ay élément yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam am ay nit ñoo xam ne ay élément yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi nag dafa am xëccoo bu am entre jaam bi euh, dafa am xëccoo boo xam ne dafa am entre seytaane ak yàlla ci melo explication bu ñu mën a wax seytaane dafay liggéey di xëcc ay ay nit ak ay jinne di leen convaincre ci boppam pour ñu nekk ay élément ñaar moo tax gis nga système bi nga xam ne am na léegi ci àddina bi ñu nekk soo xoolee ni àddina bi di déroulé ci ngay gisee ne nag seytaane mu ngi am ay résultat te mu ngi pénétrer di ñëw mu ngi ñëw vers le musulmans mu ngi ñëw vers l'islam ñëw boobu muy ñëw vers l'islam Euh, li nga xam ne mooy force bi njëkk am mooy aj gépp aj xelu jullit ñi ba talatuñ seen diine mu wan àddina wan leen àddina ci ay melokaan taar yoo xam ne amul njariñ xiir leen ci xëccoo àddina xiir leen ci xëccoo jigéen xiir leen ci xëccoo ay dëkkuwaay xiir leen ci xëccoo ay alal yi àddina bañ bam fàtte loo leen seen diina ba mu fàtte loo leen seen mbëggeel ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu fàtte loo leen seen pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu l'islam bi nga xam ne moo la moo la takkee ak sa borom parce que boobu mu la fàtteloo l'islam boobu moom foofu la jaare moo tax alquran bi bi yàlla di wax naan euh, wamtaasul yawma ayyuhal mujrimuuna alama ahadi ilaykum yaa bani aadama an laa taabudoo seytaan innahu lakum hadduwun mubiin hadduwun mubiin jaam bi bi yàlla di wax naan yee yéen sama jaam yi beru leen wam tasul yoom ayu xal mujjul man tey moom génn leen sama jaam yi allah ma ahadi ilaykum yaa bani aadama xanaa yéen yaa yéen doomi aadama man diggeelu ma leen an laa taabudoo bu leen jaamu seytaane seytaane bu leen jaamu seytaane innahu naka moom seytaane moom adduwun seen noonu la lakkum ñe adduwun noonu la lakkum ñexe leen mu biirun budu bi rek noonu noo leen kon mu biirin googu mooy du bàyyi détail détail yooyu nga xam ne nag yaa ngi koy nit seggan na yow jullit bi seytaane du ko bàyyi mooy booy wirda walla ngay julli ngay gis ne yaa ngi xalaat leneen loolu ak càggante la détail la moo xam ne la ko baal te xam ne ne sa ñàkk concentration boobu mooy indi nga génn ci julli gi sa ñaa manque de concentration boobu mooy waral sooy wax sooy wirda di sàbbal yàlla doo teewlu sàbbal gi ba sa xol tooy ci sàbbal gi mën ngaa sàbbal yàlla téeméeri yoon wala junni yoon du am benn jeexee ci sa xol c'est parce que seytaane bi ngay sàbbal bi ngay sàbbal yàlla seytaane pel na sa làmmiñ bi ba di sàbbal yàlla ci sa làmmiñ te doo ko yëg ndax am na seytaane jinne yi nga xam ne dañuy tudd yàlla mooy jinne naafiq yi dañuy tudd yàlla am na jinne yoo xam ne ñoom du tudd yàlla duñ ko jege boo tuddee yàlla ñu abal mooy jinne yi nga xam ne ay seytaane am 100 pour cent seytaane lañ am na ci nit ñoo xam ne boo tuddee yàlla ñu jóg abal foofu am na ci nit ñoo xam ne dañuy tudd yàlla comme yow jàng alxuraan comme yow fekk ay seytaan la fekk ñoom ñu ngi adhéré kër seytaan léegi nag dem nañ ba nga xam ne àddina bi ni tey jullit nii ñu ngi négligé teewlu gi amatul fàttaliku yàlla gi bëreetul dëggu gi bëreetul léegi nag teex na seytaane léegi am na doole léegi nag am na ay ay ay organisme yoo xam ne ñu ngi taxaw organiser wu seytaane mooy seen iliman dañuy lëkkaloo ak ginne yi nga xam ne ay ginne seytaane jinne yooyu dañ leen di jox ay alal dañuy soxla lu bari ci ay doomu aadama yi léegi nag mu am ñaari monde yu am muy le monde concret et le am na monde boo xam ne monde visible la et le monde invisible monde bi nga xam ne mooy monde visible bi am na ci ñenn ci doomu aadama yi ñu gën a bëri ñoom foofu lañ nekk foofu la ñuy vivre ñu xam ne am na beneen réalité bu am bu bokkul ak monde bii ñuy existe bu ñuy dund léegi nag le monde invisible foofu la jinne yi nekk foofu la malaayka nekk foofu la rawxaan yi nekk foofu la jinn rab yi nekk foofu la dëmm yi nekk ñooñu ñëpp xeet yooyu yëpp foofu lañ dëkk te ñoom dañoo existe dañoo am dañuy réal dañuy def seen ay réalisation te dañoo am des nga gis nit koo xam ne da nga gis ay jeexit ci moom yoo xam ne dana la leer ne lii jëfi jinne la yoo xam ne gëmut yàlla da nga ko gisal sa bopp mais doo mën a am accès ci xam ban jinne la walla gis ko lu dul ñenn ñenn ci nit yi ñoo mën a ñoom la yàlla may ñu am mën a xam ne jëf ji jëfi jinne la boo xam ne jinne seytaane la moo tax soo amul yenn dimension yi ci côté xam-xamu dimension spirituelle ci côté le monde invisible doo mën a comprendre système bi nga xam ne moom moo xew léegi àddina bi nga xam ne moo xew léegi ak ci naka lañ koy commandé naka lañ koy doxale moo tax ñu bëri tey perte nañ seen diine ñu bëri ñàkk nañ seen iman mais rendre ñu compte ne ñàkk nañ seen diine ñàkk nañ seen parce que duñ mën a def tamis duñ mën a def euh, distinction ci nekk ci saytaane ak nekk ci yàlla ñenn ñenn ñoo ko xam mooy ñi nga xam ne am nañ yenn dimension ci côté jàng ak jàng yenn alxuraan yi ak yenn euh, tawhid bi nga xam ne yàlla nga ko wàccee am ñenn ñu koy dund ñooñu ci la ñoom ñenn ñenn ñu néew ñoo dem ba xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci saytaane wala ñu ngi ci yàlla mais actuellement ni dem na ma adduna bi dem ma nga xam ne système bi gars yi jaxase nañ ko jaxase boo xam ne doo mën a dem ba xam ne ana kan moo nekk ci yàlla wala kan moo nekk ci seytaane parce que seytaane moo bugg moo buggee noonu des fois nga gis nit koo xam ne ni ku sell lay doon nit ku baax lay doon te moom da koy wóor na nit ku baax la mais mu gis ñu koy koo xam ne moom dafay dem ba yàgg mu posé la question est ce waa yàlla est ce que sax mu ngi fi ndax yàlla naka la mën a seytaanee lii man ma nekk ku baax di def lu baax ñu may fay lu bon fekk lu ko indi mooy yàlla dafa bokkul ak seytaane la ñu doxale yàlla yàkkamtuwul ay résultat yàlla yàqal yàqamtewul ay atem te lépp lu jàmm bi def mu ngi ci teg bëtam waaye moom comme kenn ko raw kenn mënul koo échappé moo tax yàqamtewul pour def jugement mooy le jour jour dernier le jour dernier bi nga xam ne mooy le jour le jour du jugement bi nga xam ne ci la yàlla atte jaam yi kenn ku ci nekk mu fay la sa fay te jëf yàlla yàqamtewul bés boobu ndax mu teew ci kanamam loolu moo tax nag ki nga xam ne moom day dem de bay question na wu loolu loolu mu ngi ci kanamam moom mais par rapport ak yàlla mu ngi mel ni yàlla moom mu ngi lépp a ngi teew ci kanamam tey su ma la ko doon jox message tey ma am sax euh, ay ay ay objet yoo xam ne dañuy fo wala ñu nekk sa kanam di fo léegi nga gis kenn ko tooñ kenn yow moom miñ tooñ bëgg nañu àtte ko léegi mais yow mi la tooñ bi xam nga ne kii tooñ fii lay mujj fii lay mujj du échappé moo tax doo gaaw a yow bu jar nga yàkkamti pour eh, euh, réagir ci ci ak ci action boobu dangay ngay seetaan rek léegi su ko defee moom mu am may ko sens su fekkee ne retourné wu na tu bu boobaa ñu baal ko su retourné wul tuub bu boobaa bu demee ba jur jur àtte bi ñu ñu àtte ko léegi nag loolu dina jaaxal ñu bëri nga xam ne léegi nit ki dana toog gis ñu koy lor te moom lu baax lay def ñu koy def lu bon te moom day toog ba yàgg mu ne waaw jàkk yàlla naka la mën a seytaane man ñu may def lii te man def ma kenn lu bon te fekk seytaane yàlla dafa maanu ci moom du laal daram ndax dañoo am ay frontières yoo xam ne frontières yi frontière bi côté bii fii yàlla la fii seytaane la jàmbi nag bu rëccee ba dugg ci territoire seytaane yàlla day xëpp bëtam di ko xoolee mën nga faa dugg nag fekk ku baax nga léegi nag ñoom seytaane di la lor fekk yaa ngi ci seen territoire doo ko rendre compte boo demee ba génn territoire seytaane dugg ci territoire yàlla da ngay gis yàlla ñàkkul fay dina la protéger protection boo xam ne seytaane lu mu bëri bëri bëri doole bu teg ci yow du am yow bi accès parce que day fekk yaa ngi ci territoire yàlla léegi nag jullit bi loolu moo tax seytaane sariya loolu mooy njëriñu seen sariya loolu mooy njëriñu l'islam ndax yàlla ci boppam moo lay rëddal frontières yi nga xam ne fa ngay yem soo fa emee rek da ngay gis seytaane am accès ci yow mais bés boo bëttee frontières yi nga xam ne mënul la yoon ci am sallallahu alayhi wa sallam rek da ngay gis ne yaa ngi territoire seytaane te bu boobaa yàlla day këpp bënam di la xool mën ngaa nekk ku baax de fekk yaa nga fa mais amatuloo autorisé autorisé tuuti la autorisé wuñ la foofu boo fa demee nag atte ya fa nekk nag ci ngay wéy ba keroog ngay génn territoire boobu léegi nag am ci ay nit ñoo xam ne nag jaamukati yàlla lañ dañuy jaamu yàlla seytaane nag gis na ne ñii ay jaamukati yàlla lañ seen mission bi ñu am dafa ma yàqal du ma arrangé te yàlla may na ko capacité boo xam ne doomu aadama rendre doomu aadama mënul imaginer doole bi yàlla may seytaane ak jinne yi nga xam nga mu yàlla léegi nag yow sooy jaamu yàlla soo jaamoo la ba pare bana bana bana pare léegi li muy njëkk def mooy dafay ñëw merloo la su la indilee mer bu nga bu la merloo ba nga dugg di mer yow yaa nga ca mer ma de moom ma ngay rocci ma ngay daw dem dem ni sàcc sa jaamu yàlla di ko yàq moo tax jullit bi ñu koy moytuloo mer moo tax yonent yàlla moom saa la mu ne soo meree su la fekkee nga taxaw na nga toog wala nga dem jàpp xam nga lu tax na nga toog parce que da ngay bañ saytaane gannaaw la programme boo toogee da ngay ci kaw maqaama seytaane du du la mën a dara su ko defee yow boo demee jàppi seytaane dootu la mën a ti dugg ndax seytaane boo jàppee rek dootu la mën a pénétrer moo tax ñuy wax ne nit jullit dafa takkoo njàpp soo ñu takkoo njàpp jinne seytaane yi duñ la mën a dugg mais booy sàkk ne njàpp jinne seytaane yi dañu am accès ci yow loolu moo tax seytaane dafa am ay rôle yoo xam ne ay jinne la koy sant am ay rôle yoo xam ne nit ñi la koy sant rôle yi nga xam ne ci nit ñi la jëm nit ñi la koy sant rôle yi nga xam ne ci jinne yi la jëm nit ñi la koy jinne yi la sant mais am na rôle yoo xam ne ci nit ñi la jëm ñoo ne ay borom maqaama lañu dalay dafay bàyyi dafay boole nit ñi ak jinne ñu ñëw ci yow loolu mooy waral nag nga ñëw nga gis nit koo xam ne day dikk ci yow nga nekk nit yàlla mu fexe ba def la la toj toj fekk nit yi ñooy dugg ci moom ah, moom doo koy manipuler des fois nga gis nit koo xam ne day nekk borom xam-xam nga gis euh, seytaane ñëw ci benn feeñuwaay boo xam ne ci nit lay ñëwee dugg na nit ki ñëw na ci yow bu dikkee ci yow dana la proposer ay proposition yoo xam ne moom yàlla may na ko capacité mën na accès ba si sa mën na jot li ngay xalaat balaa muy egsi moom mën na traversé ci moom ba mu egsi ci ba mu jaar ci moom soo ko ci yow moom am na possibilité dugg ci yow te doo ko yëg am na possibilité génn ci yow te doo ko yëg am na possibilité àgg sa carte mémoire xam la fa nekk te yow donc seytaane yàlla da ko may pouvoir loo xam ne dafa am doole moo tax ñi nga xam ne dañu nekk ci côté seytaane seen ay résultat dafay gaaw parce que ñoom amul gëmuñu yàlla duñu wax insha allahu duñu déglu dara dañuy def rek dañuy dañuy bëgg léegi mu léegi moo tax ñu adhéré kër nga xam ne seytaane daf leen di laaj ne dañ lay laaj ay sacrifice yoo xam ne sacrifice yoo xam ne soo ko accepté nga def ko immédiatement li nga soxla lañ la koy defal parce que ñoom amuñu patience duñu xaar duñu taxawaalu li nga bëgg rek la ko ñu defal léegi mu jeex mais am na ci jinne yoo xam ne nag dañu gëm yàlla ñoom bu ñu ñaanee yàlla ba yàlla nangul leen sax dañuy toog taaxee lu déglu yàlla ba yàlla nangul leen loolu jinne yi gëm yàlla boo xam ne moom que du lay óolu moo tax du xaar moo tax nag nit ñu bëri nag tey ñu nekk ci yàkkamti yàkkamti googu ñu nekk noonu seytaane moo leen dugg képp koo gis mu nekk ci yàkkamti rek xamal ne kooku waxtu woowu seytaane dominé na ko seytaane dox na ko direction boo xam ne moom moo ci nekk ak képp koo xam ne da gis muy ñaaw xamal ne waxtu woowu ci mu ngi ci daayira seytaane képp koo xam ne mu ngi wax ci nit ñu bon lu bon maanaam foo fekk nit ki rek nga gis ko du wax ci nit ki lu baax lu bon rek lay wax kooku xamal ne dafa nekk ci koo xam ne ci mu ngi ci daayira seytaane képp koo xam ne nag boo ko fekkee mu ngi nekk di añaan di soxor soxor añaan kooku mu ngi ci daayira seytaane képp koo xam ne boo ko fekk mu ngi seet loo xam ne euh, lu lay lu lay lu lay lu lay weer la wala lu lay yàqal la kooku mu ngi ci daayira seytaan yi képp koo xam ne nag boo ko xoolee mu ngi nekk ci waxtu wu nekk di la di la jëm a xeex di la a yàqal waxtu woowu kooku mu ngi ci daayira seytaan koo xam ne nag boo ko xoolee bu la boo ko xoolee yaa ngi koy gis muy mer tout le temps mu ngi mer kooku boo ko xoolee xamal ne waxtu woowu ma ko moom mais am na ci ñoo xam ne nag bu fekkee da nga nekk ci côté yàlla yow soo gisee sa mbokkam jurit moo xam ne mu ngi loolu yow da ngay engagé wu dem pour laajee ko biir pour fàttali ko pour wax ko ne ko yow kat moytul wala yow kat lii baaxul ci yow bu fekkee ne nag seytaane moo fa nekk da ngay gis automatiquement rek dafay samp taxaw nekk sa noonu moo tax c'est très important ñu xàmmee ki nga kilay laajee biir ak yow mu ñuy laajee biir lan moo nekk sens bi nga xam ne moo nekk pour yow ak li nekk pour moom nga xàmme ko moo tax yonent saa salaam mu ne innamal mu'minuuna ixwatun faslihoo bayna axwaykum leen jullit ñi seen ay mbokk ngeen na ngeen rafetal jëmal jëmal ak seen biir nga foofu li mu bëgg mooy nit ki bu xamee diw sàngam sama mbokk la su gisee muy loru daf ko koy wax moo tax ñun saa sala mu ne seen mbokk jullit suñ ko tooñee jëmbale leen ko su tooñee dimbale leen ko ñu ne yaa rasulallah xam nañ ku tooñ kuñ tooñ naka lañ koy dimbalee waaye ki tooñ naka lañ koy dimbalee mu ne ngeen dimba ngeen wax ko dëgg soo ko waxee dëgg rek laxee nga ko biir bu boobaa seytaane bi nga xam ne moo nekkoon ci moom ba tax muy tooñ soo ko waxee dëgg rek seytaane boobu day daal di rus seytaane boobu bu rusee ne day daal day daal di daw génn bu génnee nag nit ki day xelam day daal di des la mu xam ne kat daal juum ndax ay mbokkam faraluñ ko ci li muy def kon bu boobaa dana gis ne moom njuumteem ñëw na ci kawam bu boobaa dana ko permettre mu xalaat dana ko permettre mu jàngatal boppam dana ko permettre mu fàttalikuwaat ndax seytaane du bàyyi kenn te nag yàlla dafa nekk koo xam ne matam gi daf koy feeñal ci ay feeñuwaayam yëpp seytaane nag yàlla dafa ko bind mu nekk ay darajaat ñoom dañoo am ay niveau seytaane bu ndaw bi dafa am bu mag bi bu magam mag bi dafa am moo tax bàyyi di wax ne radiyallahu anhu mu ne wëli yàlla bu nekk yàlla na ko bindal iblisam dana ko bindal firxaamam gis nga nag moo mën a toll ci yàlla maqaama boo mënti am am na maqaam boobu bu tolloog seytaane boobu bu tolloog seytaane bi bi tolloog sa maqaam seytaane boobu ngay jëflanteel si sa dimension xam-xam nu mu toll seytaane boobu la ñuy mu am xam-xam bu nuroog bi nga mu am xam-xam bu tolloog bi nga yore mu am xam-xam bu tolloog ni ngay wax yépp dafay tolloog moom léegi nag su ko defee xam-xam bam bam bam lay jëmale yow daf lay génneloo daf lay génneloo ak topp fi ngay xamee ne yow génn nga daayiratul islam mooy dañ lay gëmloo sa bopp dañ lay gëmloo sa kattan dañ lay gëmloo sa mën-mën dañ lay gëmloo sa xam-xam dañ lay gëm gëmloo sa tayo mais nag su fekkee ne nag yow da nga bokk ci da nga nekk ci daayiratul islam da gis ne yow ku si inférieur nga parce que l'islam terrassé nañ ko ba pare amatul ku ci ñëw am ci supériorité bu dootu fa amati supériorité bu ñëwee rek xamal ne yaa ngi ci deewaanu yaa ngi ci daayira seytaane daayira seytaane nag seytaane day ëf xolu nit ci day ëf xelu nit ki day ëf gis-gisu nit ki day ëf xam-xamu nit ki ba moom mu gis ne moom li mu xam moom rek moo ko xam ba moom mu gis ne fi mu egg moom rek moo fi egg ba moom mu gis ne lim mën moom rek moo ko mën na loolu ak njay la ak ak jay la jay boobu nag seytaane moo koy def ci nit moo tax daa daayira lislaam boo ci nekkee même bu la yàlla mayee sax may nga da koy nëbb waaye ko feeñal moo tax moom la ñuy wax ne soo suufeloo boo suufe suuf boo suufeloo yàlla yëkkati la yaa ngi dégg léegi nag nit ki ci suufe suufelo yàlla da ko yëkkati suufe suufelu yàlla moo ko moom mais rëy rëylu seytaane moo ko moom yaa ngi dégg xaaw seytaane ko moom yàlla moo ko moom moo tax jaam nga xam ne dafa ànd ak yàlla nay seet rek ci boppam waxtu woo gisee nit ñëw na ci yow nga ñaaw njort rek xamal la seytaane of na sa nopp bi dégg na la du saa nga defal attention ci moom fekk seytaane la jullit dafay rafet njort moo tax yoon saa sala mu ne la nit ki ci moom lu baax wax ko soo xamee safaan ba noppi lu tax mu ne la noppi parce que xam ne safaan seytaane ko moom moo tax yàlla yénti am saa salam du may seytaane dara moo tax booy booy déglu hadis yi jàng lislaam di nga dem ba xàmmee lan mooy rôlu seytaane ci jàmm ak lan mooy rôle yonent Yàlla sallallahu alayhi ci jàmm loolu dafa dafa important ci nit ki mu xam ko dina la fekk si ba si sa biir njaboot dina la fekk si bi si sa biir ay xarit dina la fekk si bi si sa biir ay soxna ñaaw loola njortu ci ñoom fekk ay nit ñu rafet lañ nit ñu baax la nit ñu sell lañ moo tax ñaaw njortu foo ko ki fekk rek seytaane la foo fekk jëw seytaane la foo fekk xañaan seytaane la foo fekk nay seytaane la foo fekk xeebaate seytaane Euh, euh, euh, wax lu bon sañ ko manaan bu ñëpp toogee kenn ci nit ñi xam nañ li nga xam ñëpp xam nañ li nga xam waaye yow nga ne yaay ci am sañ-sañ wax li ñëpp noppee kooku xamal ne kenn la ci élément seytaan yi moom la ñuy délégué mooy ki am sañ-sañ wax li ñëpp di noppee te pourtant li ngay wax ñi nga nekkal ñoo gën a xam mais ñoom liñ def ba am dal mën koo noppee suturaal waa ji ana yow loolu la ko teree mën a def mën nga ko def donc nag loolu bokkut ak am sa mbokk moo xam ne dafa bëgg a tarxiis ñu koy seetaan nga oo ko wax ak moom fàttaliku ko delloosi ko bokkut ak loolu bokkut ak nga xam ne yàkkamtiwul lu dul dal ci kaw nit ki pour dikk di ko torox bokkuñu moo tax xàmmee yooyu dafa am solo nit ki nga xam ne dafa dafa dafa añaan ak nit ki nga xam ne dafa bëgg nit ki pour bëgg mu gàggante ko bañ mu yàqule ndax nit dana liggéey liggéey bu rëy nga gis ay nit du ànd ak moom wala ay nit nekka moom du am kenn ci ñoom ku am maqaama mën a jàkkaarle ak moom wax ko dëgg ku boobaa bu amut ku dimbale fu mu jëm day day day day sànku mm-hmm. léegi nag su amee ku ko dimbale ci nit ñi koo xam ne dafay volontaire taxaw na ko def ak face ak moom wan ko na ko yow sama mbokk nga yow sama xarit nga yow sama soppe nga wa wàññeekul fi nga jëm baaxul bu boobaa dina na ah amee xel dina na ah kii de ñu ànd ak man ñépp nag baax nañ de waaye de kii gën ci man ndax moo ma dimbale ba tarxisuma waaye ku dëggu ci dee diwaanu saytaane saytaane nag cër bi mu lay jox ak pal bi mu lay fal ak dayo bi mu lay jox day tax soo amul tawfiq ilaahiya pour nga dellu siwaat di nekk koy toppe wala nga nekk ku ñuy jiitu du daal du nekk lu yomb ndax saytaane rek dafay ëf bakkan dafay ëf xel ba yow sa xel mi day ubbeeku yaatu yaatu boo xam ne da jàpp ne ku dut yow rek yaa ko mën te loolu yàlla bind ko ci lislaam ci fenn kenn rek moo nekk ku supérieur ñépp mooy yàlla suñu bopp suñu borom tabaraka wa taala ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ku dul kii yàlla mën na laa may lu mu xañ sa mën na laa xañ lu may sa morom donc lii mooy lislaam seytaane nag dafa nekk koo xam ne jamono bii nii ñu bëri ci doomi lislaam yi seytaane élève am na ay élément yoo xam ne am na ay organisme yu xew yoo xam ne ci ñoom ay ci jinne seytaane yi ñoom bu ñuy ñëw ci yow dañuy ànd ak ay jinne seytaane jinne seytaane nag su fekkee ne yow da ngaa nekk ku néew doole boo xam yàlla may la xam-xam ci jinne xam nga jinne ak nit bokkuñ te jinne am na capacité dugg ci nit mais nit mën ta dugg ci jinne jinne mën na am capacité euh, feeñu nit ci melokaanam bi nekk moom waaye nit mën am capacité feeñu jinne ci melokaan ba mu nekk moom moom jinne kon nit ak jinne bokkuñu nañ leen yàlla bindee jinne yàlla may na ko possibilité mën na dem ak ruuxu mën na dem ak jëmm yàlla may na ko possibilité boobu jaaye nit moom ci nelaw rek la mën a demee ak ruuxam waaye ci yeewu pour mu dem ak ruuxam loolu ñenn ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla may yenn dimension yu kawe yi ñoo ko mën a am jinne mën na jógee fii Sénégal léegi balaay balaay une minute mu dem Amérique dellusiwaat yàlla may na ko pouvoir boobu yàlla may na ko puissance boobu waaye nit yàlla may na ko loolu ci dimension xel pour nga xam ne yàlla lu may jinne may na ko nit ci yenn fànn yi waaye bokkuñ ñu leen may jinne mën na dem Amérique ci jëmmam ñëw ci benn seconde bi mais nit mënul loolu waaye ñenn ñi nga xam ne nag ay waliyu yàlla lañ nga xam ne yàlla may na leen ci yenn dimension xam-xam yu kawe yi nga xam ne dem mën nañ def tasaruf tasaruf boobu ñuy def mën na leen permettre ñu jugee fii dem Amérique ñëwaat ci benn génneeku bi mën nañ ko waaye ba nekkut loo xam ne lu lu lu lu lu général la ay ay exception la ci biir nit yi mais lee nag moom dafa général ci jinne yi jinne mën na mën na dëkk gannaaw Amérique nga soxla ko oo ko mu ñëw léegi balaay am une minute jinne yàlla may na ko loolu waaye nit yàlla may ko loolu léegi nag du nit puissance bi nga xam ne moom la jinne am ci gaawaay yàlla moom ko ma nit ci puissance ak junne ci gaawaay ak yaa ak xel ñoo tolloo ndax nit ki bu mësee dem Amérique mën na faa jugee Sénégal leen ci xelam dem Amérique ñëwaat ci benn instant bi ci deux secondes wala trois secondes mën na ko xam fàttaliku la nekkoon Amérique léegi dellusiwaat comme mën na dem Amérique ci xel te fekk mosu faa dem loolu yàlla may na ko may ko nit fekk jëmmam mosu dem mais moom xelam mës na mën na faa dem yàlla may na loolu puissance boobu ci nit waaye yàlla nekk loo xam ne lu valable la moom loo xam ne du doon ay temps donc ñaari ñooñu bokkuñu ay gaawaay jinne ne ku gëmul yàlla du am ay setantal du am yërmaande du am lu muy xool intérêt nag lay dundee lay lay xool fu jëm nag boo ko indilee li mu soxla mu defal la li nga bëgg mu dem nga dem mu dem mais dafa am ay conditions yoo xam ne ci côté jinne yi daf daf ci am moo tax jullit ñi dafa baax ci ñoom ñu ñu ñu toogaat nag sëriñ si toogaat nag xam ne niñ jàppee yëf yi gën naa kawe loolu addina bi ñu toll nii tey addina la boo xam ne du addina caaxaan. suñ sàgganee rek liñ jot a am ci suñ diine wala ñu ko am ci suñ xam-xam danañ ko euh, transformé ci yeneen ay système yoo xam ne danañ ci adapté wu sax te duñ ko waag compte tey fi mu nii système bi nga xam ne seytaan yi tegal nañu ko mooy téléphone système la boo xam ne seyt satan euh, yi ñoom ñoo ko créé satanisme yi ñoo ko créé pour jéem a contrôler mémoire nit ki pour buñ la joxee lii objet bi yow ñu tënk la ci nga nekk ci liñ ci programme ci nga ci nga ciy dekk mais yow soo bëggee tey nga bëgg a def bokk bëgg a bokk ci ñoom yàlla da nga war a concentré wu si sa bopp yow ak si sa askar yi nga nekk pour nga mën a dem dimension nga mën a am dimension spirituelle nga mën a nekk ku kawe ci yàlla kooku danga war a wéet da nga war a di ko ak sa bopp mais buñ la bëggee buñ la bëggee contrôler mënuñu chaque personne ñu indi benn élément bëgg a contrôler mais dañuy créer benn objet boo xam ne. ci système bi ñu koy defee te cap dañuy capturer sa mémoire def ko ci biir système bi yow bu ko defee saa yooyu yëngatoo rek sa xel day dem ci biir portable bi nga daw delluwaat ci portable boobu foog ne sa njëriñ fa la nekk fekk sa njëriñ nekk ci portable sa njëriñ ci sa bopp la nekk dellu la dellu ci suñu bopp moom moo tax nga mën a am yenn dimension yi léegi nag ñooñu dem nañ ba da créer ay secte yoo xam ne te pénétré nañ ba dugg ci l'islam am na ci ay sëriñ yoo xam ne sax convaincre ci seen idéologie yu ñu am ak seen gëm-gëm yooyu ñu am ba di leen jox jar ci alal te ki gëm yàlla nekk sëriñ alali àddina waratoo nekk soxlaa waratoo nekk point de mooy maanaam faible kii point de faiblesse faiblesse am alalu àddina waratoo nekk point de point point faible am ndax yàlla bi muy consommé ak yàlla bi muy utilisé moo war a gën a am puissance si moom ka alal ndax xaalis am na solo ci say ay yenn soxla yi mais am yàlla moo ko gën ndax soo xasee am yàlla bokkut ak ki nga xam ne amul yàlla léegi nag nit ki dafay sàggan sàggante boobu muy sàggan mooy dem ba yàgg mu mel ni tey lumière am day wàññeeku ndax fi mu ne seytaane dooleem am seytaane am na doole quoi qu'on dise mën a xew mu neex la naqari la seytaane am na doole léegi nit ñi reconnaître nañu reconnaissance boobu mooy pouvoiru seytaane mooy dooleem gis nga même booy dem bay sukkaraat waroo gëm ne seytaane am na doole même bu ñu la dominé ci seytaane ba mu wóor la ne dominé lañ la yow waroo gëm ne dominé lañ la ci ci kii war ngaa yaakaar ndimbalal yàlla ak lu mu lu mu lu mu jafe-jafe ak lu mu sori sori ci yow donc gëm gi ngay gëm ne mënuñ la mooy sa doole ci ñoom ba tax duñ la mën mais boo demee ba jàpp na ñoom mën lañ la rek cela veut dire que yow jébbalu nga dootoo amati benn pexe booy def dootoo amati benn jéem booy jéem ci sa bopp doo bañati loo gis muy dem doo xam ne yàlla bindal na la ay pouvoir yu bari ndax nit ki am na ay pouvoir il suffit que nga contre contre boobu nga contre si sa xol te demoo def benn acte ci ci ci ak li nga contre participer nga te yëguloo ko mais spirituellement nga participer te yëgu ko mais il suffit que nga d'accord ne léegi amatuma ci pexe cela veut dire que yow ko def nga participation vers satanisme donc yéen moo tax yoon ci amal salaam mu ne soo gisee lu la naqari dindi ko ci sa loxo yaa ngi dégg benn acte la mu ne la soo ko mënul nga dindi ko si sa làmmiñ deuxième acte muy noonu soo ko mënul nga naqar la ko sa xol troisième ba ngi noonu comme moom xam na li nekk ci biir ak lu nekk ci biti moo tax mu ne na nga ko naqarlu naqarlu moom nga koy naqarlu gisuloo ko nii mu nekk lu ñu mën a matérialiser mais lu palpable mais na ñi nga xam ne yàlla may na leen basira ñuy gis jëfi xol yi danañ gis ne yow ku participer nga participation boo xam ne moo ëpp doole sax kiy participer ci ay loxoom ndax xol bi nga jël yóbbu ko ci guerre bi te yàlla moo moom xol te kon impliqué nga yàlla ci sa biir la ci sa biir xeex moo tax yooyu dafa baax ñun comme ay jullit lañ te suñu dimension dimension spirituelle la nañ di gën a consommer suñu spirituel suñu spiritualité que suñu ay maté ci côté matérialisme côté matériel moom la seytaane di utiliser moo tax moom indi ay guerre ay bomb indi ay fetal indi ay jaas yi indi yooyu yaa ngi dégg côté boobu la am man mënul dem ci côté côté spirituel foofu daf ci xaw a faible loolu pour mu mën ko def il faut mu faut mu lëkkaloo ak les sayaatin yi nga xam ne ay jinne lañ pour ñooñu ñoo ko mën a transport ñoo ko mën a transporter ay besoin ci nit ki moo waral ñuy toq sax tomb sa xol bi ba sa xol bi lëndëm parce que xol bi arme la boo xam ne mooy arme jullit bi ndax moo tax yonent saa la mu ne lumb mu ngi ci doomu aadama boo xam ne su baaxee jëmm ji baax su yàqoo jëmm ji yàqu ñu ne ko lan la mën a allah wa hiya qalb xol bi mooy li nga xam ne mooy place yàlla moo tax yàlla mu ne xajuma ci asamaanu juróom-ñaar xajuma ci suufu juróom-ñaar waaye xaj naa ci xolab jàmbu gëm nan ngay xamee na yàlla xaj na ci xolab jàmbu gëm mooy booy jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba am yëg du ngelaw li du jaww ji waaye yàlla suñu borom tabaraka wa taala mooy teew ci sa xol bi teewaayam boobu muy teew ci sa xol bi mooy yëg-yëg boobu ngay am ci sa jaamu gi ngay jaamu yàlla moo tax ki jaamu yàlla ba am yëg-yëg bi doolu ko puus ne ko demal jaamu ji yàlla waaye mooy xëcc boppam ci jaamu yàlla bànneex boobu ngay am ci jaamu yàlla bànneex boobu yàlla la moo tax yàlla suñu borom bu teewee sa xol da ngay gis ne day effacer lépp ci sa gis-gisi bët ba dootoo gisati lu dul moom doo bëggati lu dul moom moo tax jaamu yàlla dafa am solo jullit bi nag saa yu gisee lu ko naqari na njëkkee na njëkkee xolam ndax xol bi mooy dernière arme bi nga xam ne moom la am te xol bi ak yàlla dañoo liyee ñoom ñaar saa yu déclenché xolam rek na ko óor ne déclenché na li tax yonent saa salaam mu ne nañ mujjee xol bi parce que xam na puissance bi ne ci xol bi ndax bëggut ñu njëkkee suñu xam nga xeex boo koy def sa arme de arme lourd yi ngay mujjee indi sooy indi da nga indi par arme ndànk par ndànk ba guerre bi tàng nga indi sa arme lourd yi teg ko donc comme ñun suñu arme bi ñu am arme lourd yi am mooy suñu xol xol bi mooy naqarlu ak gëm ne seytaane dominé wuñu loolu mooy suñu force bi nga xam ne moo ñuy taxal mais suñu demee ba gëm ne seytaane dominé nañu mooy adhéré nañ vers le satanisme kon na gëm yàlla buñ ñàkk yaakaar suñ diine buñ gëm ne mukk seytaane dominé nañu si suñu jamono luñ gis mu ñaaw luñ gis mu ñaaw ñaaw gis nga bokk na ci xeex seytaane boo gisee jigéen bu solu gàtt solu si ba munoo koo xool rafetal njort ci moom rek ne kee de awuli yàlla bu dox la xëy na dafa nekk benn élément boo xam ne dafa déguisé pour dox mission yàlla ba tax bañ seytaane nand ko moo waral mu mu déguisé wu nii kooku dana la jugal dana la jural yow rafet njort ci jaamu yàlla yi dina la yokk puissance te dana tax nga recruter seytaane si élément boobu benn yàlla ci loxo seytaane mais il suffit nga gis nit ki mu sol lu sexy sol lu ñaaw sol lu bon nga ñaaw njort ci moom jox nga ko seytaane jébbalu nga en même yooyu ci seytaane muy ñaar donc kon dafa baax ci nit ki muy def autocritique ngay rafet njort ci yàlla rafet njot ci jaamu yàlla yi gis nga boo rafetee njort ci yàlla dèjà yow élément yàlla nga soo rafetee njort ci jaamu yàlla yi mooy ne dèjà kooku spirituellement xeex nga seytaane ba wan ko ne ko gisuma sa waa ji man yàlla laay gis jaamam yàlla bi laay gis ci ci ci waa ji kon kooku du seytaane kooku du sa élément wan nga ko ne xam nga tey nga gis ah, nga gis groupe bu taxaw ñu ne leen lii ñii samay groupe lañ nga ne ko du seen groupe sama groupe la kon xam nga dut dana am foofu dañ ko wan ne ko yow moomoo kii maa moom mu ne la moomoo ko maa moom kon mën nañu loo dem ba yàgg ñu àtte leen buñ leen àttee mën ngaa comme mën nañ laa léegi mais yow sa fekkee nga nga gis groupe bi rek na fa sa group la léegi bu fekkoon sa groupe la nag nooy def doo perte kon nit ki nañ rafet njort ci yàlla na rafet njort ci jaam yàlla moo yoon saa sala mu ne mag ñaar ñii jikko gënul leen a kawe rafet njort ci yàlla rafet njort ci jaam yàlla mu ne waaye ñaan ñii jikko gënul leen suufe mooy ñaaw njort ci yàlla ñaaw ak ñaaw njort ci jaam yàlla kon nañ góorgóorlu bàyyiwaat xel suñ diine bàyyiwaat xel suñ ay mbokk ñun ay mbokk lañ ñun jullit ñëpp ay mbokk lañ que ça soit murit nga tiijaan nga xaadir nga laayeen nga ñeseen nga ah, xebaatu nga lu ci mënti xew lépp am na benn ñu lii mooy lislaam ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ñu lii léegi ñooñu ñu boole noonu am na ci boole bu ñu boole bu njëkk foofu dafa laaj léegi nag seytaane nag comme dafa foor dafay solu mbuumu xebaat ñëw na la yow waa waa safara nga waaw yàlla mu ne man xaalal laa ilaaha illallaah daqal wax laa ilaaha illallaah rek dugg aljanna yonent sa loolu la ku wax laa ilaaha illallaah dugg aljanna waaw léegi ki julli waa ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna rasuulullaah waaye yow fan ngay taxaw ba ne moom moom moom waa safara la furut ci daayira saytaani yàlla moo la ëpp yërmande yàlla mu ne yasiru wala. wala tuxasiru ah wala tuxasiru wala daf ne daf ne eh, yombal leen waaye bu leen defee mu ne bëggal leen waaye bu leen leen xupp ah yasiroo wala tu hasiroo eh, ba nasiroo wala tu basiroo wala wala tu eh, voilà damay fàtte kii bi maa ngi jégalu ci kii bi loolu loolu la loolu la yàlla wax yéen saa salaam salaam ne yuridukum yàlla ñu delloo loolu yéen loolu yéen saa moo ko wax yàlla moo wax ne yuridukum laahu yusra Euh, euh, euh, wala bikumul musra yàlla mu ne nam mu ne ci yéen ak jàppandal waaye namoo ci yéen ak jafeel les hadis la lii ak Quraan la léegi nag yonent alayhi salaam bu fekkee wax na ne na ngeen leen bégal waaye bu leen leen xupp na ngeen leen yombalal waaye bu leen leen jafeel kon yombal gi bokk na ci rafet njort ci sa jaamam yàlla même gis nga ko muy def lu xaraam xoolal yàlla ni mu bëgg suturaal ab jaamam ci xatte njaalo ba léegi mënuñ ko àtte ci lislaam ndax lan bëgg suturaal jaamam bi bëgg jaam yépp rafet njort ci seen morom yàlla ne na l'islam soo ci atte atte njàll mooy nga gis ñaari ñeenti nit ñoo xam ne ay gor lañ ay gor yu maandu lañ ñu ñoo gis ñaar ñoo xam ne ñu ngi nekk ci néeg te kenn ci ñeenti ñooñu waxut sa moroom kañ dem ci néeg ba ñu xool leen ñoom ngañ dajee fa te kenn ci ñoom du bokk ak moom fu muy jógee te kenn sàrt bi mooy kii lay jógee penku kii jógee sowu kii jógee bët ganaar kii jógee bët saalum mooy sàrt bi ñu ñëwandoo ci benn waxtu wi gisandoo ci benn instant bi te danañ gis sàkkara ko góor ki di dugg dugg ci péyam ku jigéen bi ak génn te kenn du yëgal sa morom na ko nañ fa dem te dañuy maandu te gor la ñuy doon seen bi lii fu muy amee kon ne mooy boo ko gisee sax noppi kon rafet njortu ci yàlla mooy lii ak jaam yàlla yi kon nañ góorlu nga xam ne loolu gannaaw fen bakkaaru njaaloo moo ci topp te loolu la yàlla effacé gëmm ci bëtam am na ci benn jigéen boo xam ne dafa Euh, euh, euh, njaalo ba jël ëmb mu ñëw yonent sallallahu alayhi wasallam dama njaalo ba ëmb naa yonent ko demal ba am doom ku yërëm ko rek de mu ñëw am doom na ko ñëw naa mu ne ko demal nampal ko ba mu fer pour bëgg na ci diggante bi mu ñëw tuub naa yaa ngi dégg mu ñëw nampal ko ba mu fer mu ñëw ne ko ñëw naa léegi mu ne kon nag dóor leen waaw gaa yi daan di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba xale bi ba jigéen daw ñu daqee ko yaa ngi dégg daqee ko dóor ko ba mu daanaka mu ñàkk ndax dañuy wax ne képp ku njaaloo sangewu dañ lay jam ko doj ba nga dee bi ñëwee di ko nett li yéen saa sala mu ne leen da ngeen ko dóoree di ko jam ba mu daw da ngeen ko waroon a bàyyi xoolal yërmande googu nu mu kawe ah te boobu moo ñëw indi boppam ñu dàq ko mu ñëwaat ñu dàqaat ko loolu yëpp pour may ko sens pour mu xalaat ne war naa mën a tuub parce que yàlla moo wax ne ah yàlla day baal bakkaar yëpp na laa yaxiru zunuba jamian laa tax bul bul tëj lala bul xatal yéen maanaam yàlla hmm. ndax yàlla dafay jéggale bàkkaar yépp kon bàkkaar yooyu yépp ci biir bàkkaar yi lañ bokk mu ne nag bàkkaaru bokkaale moom yàlla du ko jéggale hmm. léegi am nañu xatal yaa ngi dégg yàlla mën ngaa def bàkkaaru bokkaale du ko jéggale waaye su la defee sa koo fayee ba bëñ buy métti mën ta nekk bokkaale ba mu bokkaale yàlla bëñ buy métti yàlla mën na ko fayee bokkaale wala yow yaa yàlla buy mesurer ah. bakkaar yi ba di riir ba ne waa ji moom foofu safara rek mm-hmm. am na ñoo xam ne ah, bakkaar bokkaale noonu lañ ko àtte mm-hmm. bakkaar bokkaale na ñoo xam ne safara rek lañ ko àtte waaye yàlla mën naa def lamp sa lamp sa lamp lakk mu mu mu ah, fayaloo ko sa bakkaar bokkaale nee na du ko baal dana ko fay waaye dalaa wax nu mu koy dalaa wax ne la man bakkaar bokkaale bi moom foofu waa ji moom dinaa ko dëpp ci safara dinaa ko lakk ba mu sëñ bi nañ yombal yàlla mën na laa def sax nga fàtte fàtte ba nga fàtte sax fàtte lu lay jëriñ sax mën naa nekk sa wattu wattu bakkaar parce que yàlla yërmande ci jaam yi dafa bari te yàlla dafa bëgg nit yàlla dafa bëgg ab jaamam moo tax xóot bul yonent saa sala mu ne bul naaw mukk bu leen naaw ci yërmande yàlla bu leen naaw ci yàlla parce que loolu def def bakkaar bul boole sa bopp ngeen safara xamal la yàlla bu doon yërmande bu yàlla kon nañ rafet njortu ci yàlla na ñun yàlla daf ñuy baal parce que ñun li yàlla may mu yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam bàyyi sa wax na ko mu ne àllaaxira sax da nga ñëw yàlla na la xam nga diw nga ne ko déedéet mës nga ko gis déedéet mës nga mës ngaa lekk ak moom déedéet mës ngaa toog moom déedéet wala am moom nga ah, man de déggoon naa ñoo bokk jamono te déggoon naa yàlla mën a bàyyi leen ko mën a aljana abul abul yasid al bustaani al am na am na benn benn bés mu génn di tukki war fasam yor yaram yar bi wadd am benn waaye boo ko far jox ko waa ji juróom def na juróom fukki at lu topp dee mësta def lu baax ma sa malaaka yi safara yi ñëw da ko jël pour yóbbu safara ndax mësta def lu baax bi mu dikkee mu ne de defara man du ma safara man taaliba abou yusit la ñu ne abou yusit woo leen ko ñu woo abou yusit ne ko abou diw mu ne leen déedéet mu ne ah moom nee sa taaliba wér mu ne ko man kay kooku xaw ma waa ji ne ko ah abou yusit yaa gaaw a fàtte yow fàtte nga bés sàngam ci waxtu sàngam ci dëkk sàngam bi ngay dem war sa te yar ba war dama faral mu ne bàyyi na for ak yar walu yàlla tax na waa ji baal ko ay bakkaaram waaye yërmande yàlla kooku ba xatal jamonoonte walu yàlla dana la tax a texe lii mooy yërmande yàlla ko ñettu dégg nga yàlla boo defee bakkaar lu ko dee réeréer mën la ko baal tuubal rek yow daal tuubal rek bu nga boo tuubee baalu nekk baal nekk ci loxo kenn baale mu ngi ci loxo yàlla yàlla bu ko neexee mu baal yàlla moo ñu waat yàlla moo ne istafro rabakum innoo kaana xafaaran yàlla ba leen yàlla seen borom buy baram bi baale la bu tax yàlla moom moo am lu ne te soxloo ci dara yow ñàkk lu te bëgg ah yaa amoo dara bëgg lu ne moom am lu ne te soxlawu ci yow yaa ngi ñàkk amoo dara te bëgg lu ne moom mu ngi am lu lu ne te soxlawu ci dara kon nañ góorgóorlu ci bëgg yàlla ak yonentam nañu fexee ñu xàmmee saytaan yi ñu bañ a adhéré kër saytaan yi nañ baax nañ dimbalante nañ jàppante suñ gisee seen mbokk bu bëgg a yàqu nañu jaral suñ bakkan nañu jaral bu nit ñi comprendre bu nit ñi comprendre ça importe peu yow yàlla rek doy na sa xol yàlla doy na yàlla mooy àtte xol yi nit ñi xamuñ xol yi jëf yi lañ xol lañ xam sa jëf na rafet waaye sa xol na la na la yàlla doy seede sa xol su ko defee sa mbokk moom na la jaral parce que da ngay njort ne yow bu doon yow mu jaral ko kon yow it nag bu dee moom na la ko jaral ba àddina yëpp xam ne jaral na ba àddina yàlla dana atte yàlla buur bu maandu la léegi doon bu ñu demee ba ca kanam la ci kanam mooy atte jamono dana atte bu ñu demee ba ca kanam jamono dana atte ñu xam yow lu nekkoon si waa ji ndax dangaa baax wala dangaa xañaan wala dangaa soxor mais ci moment bi ngay xëy yàq seytaane yéen a def face parce que seytaane recruté waa nekk na bëgg na koo yàqal bëgg na koo kii parce que li muy arrangé wu ko dana dugal ca xel mi ak rëy dana dugal ca xel am mbewte dana digal ca xel mi yaakaar loo xam ne amul léegi su ko defee bu amee ci moom loolu soo ko bëggee foqati ci loxo dana xeex ak yow mais su amul ndimbalu yàlla du dem moo tax nañ góorgóorlu ci bu ñuy jàng salaatu faatee ci waxtu laazim nañ di teewlu suñuy wirda nañ di teewlu suñuy julli nañ di teewlu suñuy saraxe nañ di teewlu nday Aïcha radiyallahu anha bés bu njëkkee saraxe teewlu ko keroog la ko yàlla uññil ndigg xaarifi billaahi ba mu jëlee sarax sa teg ko ca malaan ma dem ba yàgg mu dëpp dem di ko parfum yonent sa yonent am saa sa ne ko waa lay def nii mu ne ko ci loxol yàlla la ko teg yonent ne ko ay Aysa da ngaa kon gis nga affaire bi da am koy tollu foo xam ne da ngay dem ba léegi ubbil dégg gi boo déggee nag da gis ne léegi gis-gis bi nga a am ak gis-gis bi léegi dootu nekk ci benn kon nañ góorgóorlu am dégg-dégg googu ci yàlla ak ci jaam yàlla yi yàlla dafa ko bind bind ay jaamam daf leen waaye bind la seytaane nag mooy indi problème bi yëpp waaye nga bul woon seytaane yàlla amul lu bon waaye lam daq seytaane mooy lu bon moo tax nit ñi xàmmeewuñ ne gis nga jëf ju bon lu yàlla bañ la mooy lam la seytaane jot a laal ah mais yàlla bi mu bind seytaane seytaane nekk fi ak malaayka yi lu bon am toon lu bon lépp a baaxoon lu bon ci seytaane la commencé lu wex ak lu kaani mu ngi commencé ci xaabil ak xaabil keroog bi xaabil reyee xaabil keroog ndox saf xorom am keroog la kaani am keneen la garab gu am dëkk jam-jam am keneen la lu garab gu wex am parce que bakkaaru xaabil bi ak xaabil moo ko indi bi bu saytaane wéddee yàlla keneen la lu bon am léegi li saytaane laaloon yëpp yàlla rek ko pakete sa waaju sa kër rek ngeen xuloo xuloo bu tar nga moom ko gis nga morso kër bu moom sax soo koy noonu la yàlla def saytaane ay ay bagaasam loolu la nag la tuddee lu xaraam loolu la tuddee lu bon loo ca laal la xamal na lu yàlla sànni la lépp loo dégg na lu lu baax la rek lépp loo dégg lu baax rek xamal na loola moom la yàlla defaat gannaaw ndax seytaane léegi lan mooy solution si mucc si seytaane liy solution mucc si seytaane hmm. wax naa ko mooy frontières yi ñu xàmmee leen mooy tënku ci charia ak tariqa ak xaqiqa lii mooy tax nga mucc ci seytaane parce que frontières yooyu seytaane du ko laal ndax seytaane dafa maandu ci biir territoire moom moom moo la yëg lu ko neex la lay yàlla yàlla ci ŋànk nan la nit ki di def ba bu nekkee si biir territoire boobu du fa génn mooy moo ak sax si xattee sa ñaay di saxoo istixfaar di saxoo julli ci yonent bi di saxoo tudd yàlla rafet njort ci jàmm yàlla yi yaa ngi ci loolu yaa ngi ci daay yaa ngi ci biir yàlla bi waaw mais dañuy gis ñoo xam ne mhm. ñu ngi ci biir loolu mhm. waaye dañuy dem a benn instant seytaane fëkk leen lu koy waral mooy ñàkk teewlu gi may wax la boobu la seytaane di jaar mooy booy jëf-jëf boo gisee yàlla mu ne yón si alai salaam mu ne innama ahmaalu bi niyaati waaye waa innama li kulli imri in maa nawa sooy jëf lu baax da ngay taxaw teewlu balaa ngaa jëf-jëf ji nga éene éene bu mat foofu seytaane du mën a agir foofu du fa mën a dugg moo tax yàlla ci boppam am na ci jaam ñoo xam ne dafa wax ne seytaane jaam yaa ngi ne waaye ba mu des sama jaam yi nga xam ne maa leen tànn jaam ñi mu yàlla tànn noonu dafa am dimension bu yegg ci yàlla moo tax dootu la mën a jotati léegi nag dimension boobu mooy jëf dooy mën a jëf na nga ko def ci teew te na nga rafetal éere bi moom sell su seytaane moom amul ci place. Hmm. Ah. macha allah sëriñ bi léegi nag lan ngay dimbalee la yan lan yan dénkaane moom ngay indi si mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoo bokk pas-pas si Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass. mooy sunna bàyyi rek. man hmm. loolu mooy sama problème. Hmm. ñu dekkalaat ko parce que ba ko mag ñi amee. dañoo newoon ci jàmm. ñoom ñëpp dañ doon dund yàlla di fàttaliku yàlla ah? daan tudd yàlla ba daawuñ gisante sax dañ daan dem ba tax bàyyi di leen tax naan leen dem leen seen soxna yi hmm. ba addina itam leen boobu yàlla la yonent alayhi salaam ba saxaaba yi seen jëm bopp yàlla yoon dal si seen kaw daleen man maa leen gën maa leen gën a ragal yàlla te damay damay damay dem si samay soxla hmm. dem leen si seen soxna yi loolu lu ko indi woon mooy de fukk lu yàlla gi doon fukk lu yàlla seen xol ak tudd yàlla gi doon tudd yàlla rafet jot gi ñu amoon seen bopp seen i seen i morom jàmm loolu moo ak ñàkk a teewlu gi am ndax dañ ñoo jox ñaari arme yaa ngi dégg. Hmm. moo tax yonent almaa saa sallam waxoon na ne jihaad ju ndaw ji jeex na des na jihaad ju mag ji. yaa ngi dégg. Hmm. jihaad ju mag ji nag gars yi dañ ne mooy jihaadu nafsi hmm? fee ñu ne jihaad moom mooy jihaad yi doon reyanteeka ak kii léegi bàyyi bi ñu ko laajee ana mahdi daf ne jaase maa ko kon nag xam ne nag jaasi. ji bàyyi yor du yi ji gaa yi xeexe kon jaasi ji nañ ko xàmmee xam ne jihaate nag borom yi rek moo ko mën a def yaa ngi dégg kon ki jaas jaasi ji moo waral moo mën a jihaat jihaat ji kon nañ xàmmee jihaat ji ak jaasi ji tarixa bi ñu jox mooy suñ xeexukaay ci ci ci seytaan bu ñuy julli ci yonent Yàlla moom sala salaam man am na ay jinne yu waaye loolu soo ko waxee sax naan ma ngay wax waxi jinne ba ngay kii parce que loolu xam-xam la boo xam ne beneen xam-xam la. Hmm. saatu fàtte bi day lakk day lakk jinne seytaane da leen di lakk comme ni safara di lakkee karaw. Hmm. la saatu fatiha di lakkee jinne seytaane yi. Hmm. alquran daf leen di lakk moo tax may wax taalibe bàyyi da leen jàng alquran da leen juddu ci yonent bi. gis nga ku ci na ne mucc nga ci seytaane nax nga sa bopp. gis nga gis nga kenn rek la yàlla tuubal seytaaneem. muy yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam bàyyi nga def ne sama seytaane mënalatuma dara mënalatuma tus yaa ngi dégg. kon nañ góor góor góorgóorlu xam ne ñun ay ñu matati lañ seytaane mën nañoo fëkk mën nañoo gëlëmal hmm. kon nag nañ góor góorgóorlu ànd gi ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim mooy ñuy tegtal yoonu njub bañ mën caa aw hmm. yàlla wax na yoon ci alma saa salaam way naka la tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha moo tax may wax gaa yi ne ñuy wax naan salaatu faati ihdina siraatal mustaqima mooy teg gaay naasiril xaq naasiril xaq bil xaq wal hadi ila siratika mustaqim ma xaq mooy dimbale ya mooy dimbale dëgg ci dëgg ma ne leen déedéet naasiril xaq mooy dimbali koo dëgg ci dëgg parce que yàlla yonent bi mooy dimbali koo yàlla hmm. yàlla dimbali koo yonent bi yonent mooy dimbali koo yàlla yonent mooy mooy ko mat ki koo yàlla mooy naasiril xaq bi xaq mooy dimbali koo dëgg ci lan xaq mooy lislaam bi ko yàlla jox hmm. ci li ak sariya bi ko yàlla jox lay dimbanikoo ak yàlla mi ko ko jox hmm. moom lay di dimbanikoo ndax bi yonent bëggee jubal gars yi ci yoon yoon lislaam na ko defal naa ko mënoo hmm. yàlla ma sopp way nekk la tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha hmm. kon naa si la ko wal haadi mooy aji jubale la yàlla jox mooy jubal gars ci yoonu yoonu yoonu jub yonent jubalu kenn lislaam bi yàlla jox yonent bi ak sariya bi ak alxuraan bi mooy jubal gars yi ci yoonu njub moo tax mu ne wal haadi lan ko jox noonu loolu mooy mooy naasilil xaq mooy dimbale ko yàlla bil xaqi ci ci alquran ci ak lislaam bi ko yàlla jox parce que yonent daan julli da daan oor da daan jàngaat fan da daan def lépp da daan def jëf yu baax loolu la mhm. loolu ko ak yàlla mi ko ko jox waxtu wu ñu amaan problème kon yonent day dimbale ko ko yàlla jox loolu mooy naasiril xaqi bil xaqi wal haadi mooy la ko yàlla jox noonu mooy jubal gaa yi ci yoonu njub parce que boo ne wal haadi ilaa siraatil mustaqiim mooy yonent bi mooy jubal gaa yi ci yoonu njub da ngay daanu te alquran yooyu dina la ko fële na la way naka la tahdi man ahbabta walaakinna kon la yàlla mooy yoonu njub waaw kon nañ ñooñ xam ne buñ bëggee jub nañ jàng alquran nañ julli ci yonent bi nañ jàng nañ def jëf yu baax yonent doon def lii moo teg ci yoonu njub xam nga li la ko xamal mooy yonent sallallahu alayhi wasallam Euh, Seydi euh, Seydou ak ak ak Fatimatu mooy xusaamatu ko ah. xusaamatu ak ak Fatimatu yonent wax na leen leneen xalaaxara jën jëm bu ñu fa ñëw bu leen fa dikk naan maa yonent ñoo bokk du leen fa jëriñ dara yaa ngi dégg bu leen ñu ñëw ak seen ay jaam yàlla nga ñëw fa naan maa yonent ñoo bokk du leen fa jëriñ dara kon tegtal boobu rek dëggal na ay walhaadi yi gars yi di ko firee walhaadi yi mooy yonent ilaa mooy aji jubale ilaa siraati mustaqima jëm ci yoonu jub déedéet ni yonente alayhi salaam mm-hmm. ni la yàlla tegee yoon du bi noonu la ko ko tegee xanaa léegi ci sansam différence ak yow mooy moom teggil nañ ko bàkkaar kii yu mujj yi yaa ngi dégg mm-hmm. te yow teggilu luñ la ko wala mm-hmm. yàlla teggilu ko bopp ci lu ma yëg ndax yàlla moom ak mbaaxam mën na lu ne yaa ngi dégg kon nit ñi nañ bàyyi xel ci l'islam bii nga xam ne góor góorgóorlu da ci am solo gannaaw ndimbalal yàlla ndax bàyyi mbay waxoon na ne kuñ dimbale dana mat dana mën ku ko yeb de dana yeb ku ko mën de hmm. kuñ dimbale dana yeb ku ko mën kon nañ góorgóorlu ci lislaam bi te bañ a foog ne àgg nañ ndax seytaane mu ci suñ kanam wax naa ko suñ vidéo ba passé hmm. ma ne seytaane bu tey masalan tey boo amoon tey nga dugg digg guddi hmm. deux nga dem ci fu bande yi nekk nga sol yëre yu tilim ah sol dàll yu xotee sa bopp bi na cuqur nga doon ci mbedd yi boo gisee agressé dañ naan eh gars yi ça dañ lay foog ci ñoom yaa ngi dégg waaye boo solee des jasneer sol montre bu seer boo xam ne or la takk ceenu or yor portable bu seer dool ay dàll yor sac bu seer saa waay buñ lay gis balaa ngaa jëm ti ñoom ñooy daw jëm ci yow. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg donc taalibe tijaan bi ak taalibe baay bi nga ko wóor ne moom dafa yor or boo xam bu ko seytaane gisee mooy leer ak salaatu fàttali bi mm-hmm. ak leer ak fàttaliku yàlla gi ak leer ak yàlla gi day lakk seytaane léegi nag bu ko seytaane gisee danaan élément kon am naa problème nag léegi xaaral ma jóg jëm ci loolu mooy indi ay jax-jaxat yi nga xam ne man gi ngeen naagu bi taalibe bàyyi nga toog ne xam nga yàlla da nga ne yow yaa da ngaa xàgg ci yàlla bu julli la la la xam yàlla de xàgg nga ci yàlla dafoo xam ne jég kenn jegewu la mm-hmm. julli gi jaru ko yàlla moom ki moo fi nekk daf dara ne waxi loolu yàlla su añ jotee mu la ne dama nga añ ba suur yow mii dama la ngaa xiif nga yëg xiif sa biir bi bàyyi la ba nga xiif mu dara xiif de dama nga lekk nga lekk ba suur su jigéen ab jàmbur rombee mu ne la waaye yow fii njaaloo dafay nekk moo tax taalib bàyyi maa ngi leen di wattandi ko bépp ta mbokk taalib bu leen di xiir ci yooyu dee leen ko daw parce que bàyyi dafa wax ne xàndandoo bu baax day tax a baax xàndandoo bu bon day tax a bon yaa ngi dégg fii u fi diini qarini an in hamim in saalihan fa saalihun wa in bahim yaa ngi dégg kon su fekkee ne yow yaa ngi nekk nit ku baax booy ànd ak nit ñu baax ñi da ngay baax soo nekkee nit ku baax di ànd ak ñu bon ñi bon kon nañu wattandiku àndandoo yi te it ñu baal bàyyi xel ni ñu àndal ñu baax ñi nañ ànd ak ñu baax ñi ñu bon ñi nañ dem ànd ak ñu baax ñi ndax ñu mën a baax hmm. waaye ku baax warta dem di ànd ak ku kon nañ bàyyi xel ci loolu donc nag su fekkee ne nag yàlla dogal na ci yow nag nga nga nga war a wirda mu ne la yow nga xam yàlla wirda bi da nga ko fay gis wirda bi dafay nekk nga sànni fi sa kurus gi dal di dem mu mu ba wax la ci àddina léegi nag boo xoolee ñàkk wirda gi boo ko defee ca la ngay nekk doo ci gis benn résultat bu gën la ngay am ci kon kon loolu du seytaane yow tëdd di nelaw sax bu jotee nga gis mu ëff sa xel mi nga gis nga commencé ëbbali commencé gëmmen nga daal dafa teg julli ga waaye bu añ jotee mu eere nga xool sa bët dem aññi su dox dem sa xarit yi jotee muy bàyyi la nga dem dox si sa xarit yi dem toog di wax wax caaxaan muy moo koy gënal mu bala ngay wirde parce que wirde du ko arrangé ndax jinne yi da dañ ñoo ëpp jinne yi mag benn jin benn nit koo compté compté fukki jinne day des noonu la ñuy jinne yi ëppee te nit ñi xamuñ ko donc jinne yi nga gis benn nit boo xam ne lu ma téeméeri jinne danañ mën a nekk ci moom te moom du ko xam loolu hmm? yàlla may na ko jinne lu ma téeméeri jinne mën nañoo nekk ci benn nit te nit ki du xam ne téeméeri jinne ci moom nit ñu dëkk moom du ñu xam ne téeméeri jinne ci moom lu dul rek benn jinne bu fekkee li ëppal ci bay feeñal ay mbiram mën naa tax ñoo xam ne waa ji kat dafa ànd ak dara kon nga xam ne fi ñu nekk àddina bi ñu nekk ban àddina la territoire bi ñu nekk te fii boo gisee ñu ne nit ku nekk am nga rab xam nga la ko indi parce que fii balaa nit ñi di wàcc fekk yàlla implanté na jinne yi jinne yi ñoo fi kaw suuf fekk na jinne territoire yëpp occupé nañ ko ba na ñu nekk nii est que am na ci terre bi fenn fu amul président boobu moom mm-hmm. foofu dem am na président bu ko moom séddoo nañ ko pare mm-hmm. te jinne yi ñoo fi ñu fi jinne yi moom nañ territoire bi moo tax fépp foo ci wàcc li nga boo naan cëpp di ñëw xam nañ lan mooy sa mission ndax da nga leen di yàqal wala la di jëriñ xam nañ moo tax su la yàlla mayal xam-xam ci ñoom wala dooy jonjoog ñoom dooy jokkoog ñoom bu boobaa lu bëri dana la ump da nga jàpp xam da dem ba yaakaar xam nga dara waaye bés boo jaxasoo ak ñoom da nga dem ba da nga xam ne nekkee aha am na beneen xam-xam bu xew boo xamul yow. Hmm. moo tax def ndànk ci wax yi ak jëf am solo nit bu amul lu xam bu xamul dara dafay dem ci ña ko xam topp seen ginnaaw ñu wan ko yoon mu may ma bañ a fakkasalu bëri nañu tarxiis seytaane këf na leen tax yëguñ ne seytaane moo leen këf mais tey booy wax ak ñoom seytaane moo leen moo leen di défendre hmm. seytaane mooy ëf seen xol bi ñu nekk te dañ bàyyi xel na yow seen mbokk taalibe nga wala yow seen mbokk jullit nga léegi nag seytaane du leen may ñu am sécurité seen bopp yooyu dina déglu seet si sens bi ngay waxee ñu xotti li njëriñ jël ko li ci li seen amatala xam nii fa ma si noowu bi misaan sanin wa maa hmm. loo xam ne natt ngeen ko ci sariya mu ma ndaxaw jël leen su jàpp màndaxoo bale na parce que xëy na amoo dégg-dégg bi ba pour mën koo pour mën koo peese si sariya soo toppoo ta sariya bàyyi fa bu keneen mën naa ñëw mu xam nu mu koy atte ci sariya mu mën koo àgg àggale kon bu ngeen déggee ci man la wax gars nag xëy na ñoom ñoo xëy na ñoo déggul wax ji moo tax ñu ne seet yàlla wax nañ ko ndax da lañu sosol mu ne waaw buñ la sosolee mu ne del leen sama wax ji wax jooju ñu ma sosol ngeen peese ko su ngeen ko peesee si sariya bu Cheikh Tidiane daf ne isaa sàmmitu su ngeen déggee xam ni ci man say an say am mbir fa masinuhu da ngeen ko peese bi muy saan ci man da xam sariya si yaa ngi dégg hmm. fa maa wàq fa bu li ngeen yóbbu ci sariya dëppoo na sariya fa xusoowu téye leen ko fa maa wa maa xaala fat fekkee ne dafa wuutee ak sariya hmm. fat fu kooxu ngeen teg ko nële bu leen ko laal parce que xëy yow mu koy yow mu koy peese xëy na sa dégg ci yàlla ak gut ci mën nga peese wax jul ndax boo demee ci ci ci kaasiful awlaas bu bàyyi bind hmm. am na ci wax yu bëri yoo xam ne wax Cheikh Tidiane la bàyyi ko leeral ba ñu mën a xam ne rek wax ji nekkul wax ju jombee hmm. ndax nekkul wax ju génn la naa yàlla ñu bëri dañoo foogoon ne ku ko wax yéefér nga hmm. waaye ndeke maa yàlla tim bi yàlla yàgg na ko wax ci garab yeeg ñanaaw yi ah yàgg yàlla yàgg naa wax maa yàlla ci lu dul nit sax yàlla ci nit warta te yàlla moo mu gën lépp tam ñu nangu maa yàlla ci garab alxuraan indi ko lu mënuñu nangu maa yàlla ci nit Hmm. kon loolu dégg-dégg mooy indi problème boobu ba tax seet yaa ngi wax loolu kon nag nit ki su fekkee ne am nga loo xam ne amoo ak dégg hmm. da nga ciy def ndànk ba yàlla may la ak dégg moo tax su ne nit di conseillé bul dem kër seytaane adhéré taawal xool ko nag kii sama mbokk la lu tax mu wax lii tey da ko xëy ba mu wax lii nga def ci jàngat def ci autocritique borom xam-xam noonu lay jëfee hmm. yaa ngi dégg hmm. kon yàlla nañu yàlla may tawféex ci lii hmm. Hmm. bañ mën a dégg li nga xam ne mooy jamono bii ñu nekk dañ xam ne seytaane du ñu bàyyi duñ dañoo am ennemi première muy seytaane te du ñu bàyyi te du ñu may dara foofu ñu ñu mën a gën a diviser wu rek mu ngi koy gën a arrangé ñun ñu ngi gën a perte ñu gën a mën a diviser wu mu ngi koy arrangé ñun ñu ngi gën a perte ñu ñun gën a boolowee mu gën ñoo arrangé gën koo yàqal kon nag arrangement bi nekk ci ñun mooy ñu suudewu ñu nekk benn waaye bu yeboo àddina yëpp wala ginnaaw yàllaa ngi ànd ak yow te ànd ak yow yaay am na. Hmm. moo tax dëggu moo am solo. Hmm. kon nit lu muy nekk na ci dëggu soo ci dëggoo rek même boo tarkisee sax yàlla dana la dimbale ba tegaal la ci yoon fekk sa dëggu moo lay dimbale. Hmm. kon dëggu dafa am solo ci looy ne lépp lu taaliba baay bi di def na ci dëggu. ba mooy waxtasi waxtasimu bi hablillahi jamiian wala ñu déglu ci Baye Niass muy wax boo xam ne daf ñuy jaaxal ñun ñëpp. bëri na taaliba baay yu mu jaaxal rawatina ñun ñii toog. Eh, mu wax ne eh, ku am yàlla ñàkkloo dara wala sa balaa muy wax loolu wax bu wax bu njëkk ba mooy eh, ku yàlla may yonent bi gën ci yonent yi may la téere bu gën ci téere yi may la diine ji gën diine yi mu ne waraloo def sa bopp dof wala sax lu dul moom du diine mu ngoog waroo def sa bopp dof boo xam ne ku jot rek jël yóbbu la nax la mu ne li euh, kémta laayal xaw ma li toll ni kémta li ma xam kuy dem ci magasin yàlla ya sàkk lu la neex jox ku la neex mu ne loolu amut ku leen koy yox rek amut mu ngi leen di nax léegi nag magasin yàlla yooyu moom mooy lan ak ak euh, naka la fa ni war a mun a waaye loolu sax lu jomb la ndax bàyyi nee na mun ne ndax lu bàyyi toxal rek mu ne waaye lan mooy màngasinu yàlla yi loolu laa la bëgg a laaj ngal dimbale ñu ci la ñu bàyyi dafay jàngal mm-hmm. taalibe yi mm-hmm. pour ñu dellu ci iman mm-hmm. maqaama iman la leen jàngal pour ñu doyoo yàlla te ci ay atem xam ne am yoo loo xam ci loxo yàlla la ne am loo xam ne ci loxo yàlla la ne waaye daf ko ay jaam yu tànn dénk leen ko loolu lay jàngat léegi nag màngasin yàlla yooyu bokk na ci benn màngasin bi mooy wërsëg yàlla dégg ko kenn magasin la ci yàlla. Hmm. yaa yàlla dégg ko kenn moo ko yore boppam kum neex rek mooy xam yaa ngi fan ak dund ak yàlla dénk ko kenn magasin la ci yàlla yàlla ko yore boppam dénk ko Samba dénk ko Kidemba. Hmm. yaa ngi dégg iimaan yàllaa ko moom alalam la kenn du ko maye ku yàlla yàllaa ko moom moo koy joxe est-ce que yaa ngi dégg. Hmm. wér kenn mënu koo may nit ku yàlla. yaa ngi dégg. Hmm. donc yooyu ay magasin la yoo xam ne ay magasin yàlla la yàlla moo ko moom moo koy maye. moo tax bàyyi mu ne nag loolu bu leen ko yaakaar ci kenn ku dul yàlla képp ku leen ko dig da leen di nax aljana magasin la yàllaa ko moom moo koy ubbi ku ko neex ku mu ubbilul doo du kenn mënu caa kenn ku yàlla xanaa ku mu jox ndigal la la dugalal dugal ci diw kon yàlla moom moom magasin yooyu yooyu ay magasin yàlla la yoo xam ne demeet demeet demeet demeet hmm. yooyu la bàyyi di jàngal nit ki ne ko waratoo dem ba ñu lay xuppee alal ngay ragal parce que magasin boobu ka la koy xupp moomu ko ci loxo yàlla la ne mm-hmm. waratoo dem ba ñu lay xuppee dee mm-hmm. dee googu newul ci loxol ka la koy xuppee mu ci loxol yàlla bul ko ragal bul ko faale mm-hmm. su loolu nit ki yorelee añ ak réer ne ko euh, euh, mbir fa yàlla la bàyyi bëgg jàngal ne ki na dellu yàlla na ko lii yàlla bu kenn laayal lim kenn ku ci am ku dul yàlla da gis kenn ku yàlla dénk wërsëg bi nit bàyyi na ne ndokk bu yàlla amutee doom. fii buuri àddina li ñuy rëy rëy rëy mun ñoo wërsëgal mun ñoo kañe. ah kon man nga si yàlla yàlla jox ko kenn. loolu alhamdulilah. loolu mooy saa yi def na bi loolu du ko wax ci bett. <laughs> waaw kay alhamdulilah beneen bi mooy euh, wax bi nga xam ne Baye wax na ko si benn ziara ziara sukri mu ne mu ne mu ne jaam bi yàlla mun na ko feeñu ci manaadu bële mun na ko feeñu ci garab ga mun na ko feeñu ci mbaam ma mun na ko feeñu sax ba ci man mii mu ne jaam bi ne sàkku yàlla bu demee ba am yàlla waa ji nga xam ne toog na fële ne ne ne hein ne ne yéeféer ba nga xam ne toog na fële bañ ne du la bëgg ndax boo amee yàlla amoo ko ñu ne axakay ne euh, ki nga xam ne euh, weddi na bañ na la maanaam daal képp koo xam ne weddi dina rek bu toogee fële wa yow mi nga xam ne am nga yàlla ndax boo amee yàlla amuloo kooku léegi wax boobu it bëggoon nañ. waaye wax na ci tamit. Uh-huh. ne da doon ñaan fan yi waaw gis day jeex voilà waaw kay foofu la wax ja tàmbalee. waaw ñaan naa yàlla yërmande yàlla ma gis na mm. euh, day jeex. ma ñaan yàlla. Euh, njëggala ma gis ne day ma ñaan yàlla wër kii. xew ma gis na day jeex. wallaay te loolu yëpp ay mbir yu kawe la. Mm. waaye nag mu ne gannaaw ga ma gis na daal jëmmi yàlla ji rek moo ma doy ah. ma ñaan yàlla mu may ma yàlla kon ah. yàlla ñu yàlla may yàlla léegi nag nit ki moom nan lay amee yàlla ak naka lay ñaanee yàlla loolu lañ bëggoon a xam nga dimbali ñu si ñun tamit insha allah waaw jiñ ñu rek. Mhm. ñooñu yàlla ñu mu bàyyi mu bàyyi leen ngeen déglu. moo tax mu naan tafam tafam ramsu ahlillahi falaa tublaa bi nuklaan. Mhm. boo déggee bàyyi mu ne yéen ñaan na yërmande yàlla mu gis ne jeex. Mhm. xam bi nga xam ne xamut yàlla bu déggee loolu dana ah waaye yërmande yàlla moom nu ko nit di ñàkk lan lay jeexee ak nu ko nit di euh, ñàkk soxla mu ne ñaan na aljana gis na aljana day jeex mu gis ne ñaan la njégala mu gis ne njégale yàlla lay jeex xam nga loolu dafa day war léegi nag loolu soo ko bëgg dégg ci jàmm Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. loo bëgg xam ci yàlla rek ut ko ci jàmm soo bàyyi ñas dafa ne soo ne du ma du ma jëflante jàmm yàlla laa jëflante direct mm-hmm. mu ne doo jëflante yàlla mu ne da nga di xam yàlla ci jàmm bi waaye da xam jàmm bi ci yàlla est-ce que yaa ngi dégg léegi nag soo bëggee dégg loolu masalan tey ma jël ko message si sama bopp yow faatal nga ñëw ci man bi nga ñëwee ci man nga sàkku ci man ci bët bët bët nga sàkku ci man bët rek léegi yow su ma la mayee bët ci man xam nga loolu yërma eh, kii la eh, eh, kii la maanaam xéwal la non mm-hmm. yërmande la mm-hmm. la man ndax sooy dox mën ngaa bañ a mëkk dara mm-hmm. <laughs> tax doo ko mëkk xam nga loolu yërmande la ci yàlla mu ne bàyyi mu ne gis na ne bët day jeex ndax mën ngaa ñëw soxla lekk kon nga xam bët jeex na bàyyi mu ne ñaan naa xéwalal yàlla mu gis ne xéwal gi day jeex lekk xéwal la gaa yi ñu ko mën a gaa yi gaa yi ñu xewlu sax hmm. hmm. soo ñëwee fekk fi naqar. Hmm. ci kër gi ce que lekk am na fa njariñ. lekk jeexut fa. ndax gaa yi bu ñu amee naqar danañ lekk. boo ñaanoon boo ñaanoon lekk ci waaj. tey boo ñëwee est ce que lekk dana am njariñ foofu. lekk amu fa njariñ. tey mu ne ñaan naa yërmande yàlla wala ñaan naa eh, eh, eh, njëggalam. léegi yaw nga ñëw tooñ waaj da ngaa ñaan njëggal yàlla. nga tooñ waaj tooñ boo xam ne mu ne ah, wax dëgg yàlla mënu ma lii moom ma ko baale. loolu moom foo nga fay ma. Hmm. est-ce que loola jeexut. Hmm. ah. Hmm. léegi yow su fekkee da ngaa ñaan mu ne ñaan naa yàlla xal dina am. fekk ma gis na xal dina day jeex. yow soo soo ñëwee ci man nga ñëw rek na salaamaaleykum da fekk muy xuloo xuloo bu tàng mer soo ñëwee est-ce que fekk nga fa sama aljana. ah fekk nga fa aljana de ndax doo ñëwee doo ma gis ma ree doo gis mer nga fay fekk safara nga fekk ma taxaw kon xam nga kooku loolu dem na. léegi nag su fekkee ne nag nag maa am man mu ne ñaa mu ne gis naa la jëm yàlla ji rek moo doy bu boobaa yow ñaanatoo bët ñaanatoo lekk biir ñaanatoo tànk yërmaane ñaanatoo euh, aljana mooy mbégte gi léegi ñaan nga waaj mu ne boo xamee boo xamee yàlla xam nga waaj léegi yow su ma la xasee am su ma ñëwee fekk nga gëmmantu xam nga bët su gëmmantoo mooy yërmande ci waa ji pour mu nopp na léegi yow su ma ñëwee fekk la nga gëmmentu est que su ma la amee na la dama laa soxla léegi nañ dem ñu la benn problème ca tànk est-ce que bu neexee bët mu taxaw fële ne moom d'accord ci dem gi moom delloo na soxla est-ce que bu neexee bu ko naqaree du topp tànk ñu dem. Mm-hmm. tigi. dana topp tànk ñu dem. tigi mu neex ko mu naqare ko ndax am naa la yow. Mm-hmm. am gi ma la am yow mooy tax su ma la soxlaa ñu war a dem doxi benn soxla. Mm-hmm. su biir xiifoon bay dee. mu neex biir mu naqari biir parce que ma nga toog fële na d' accord uma mooy yéeféer ba hmm. toog na fële d' accord ne d' accord uma ci dem gi man lekk laa tax hmm. lekk gi laa bëgg est ce que moom dana danañ ko bàyyi mu lekk hmm, mu neex ko mu naqari ko dana dem da nga ko xamaale bu waaye ji bu tànk yi dem dana dana ko def parce que yow laa am te yow yaa moom loxo yaa moom tànk yaa moom bopp yaa moom bi bàyyi mu ne nag su jàll bëggee jàmm day digal ñooñ bu gërëmee jàmm day digal ñooñ asamaan ak ñooñ suuf ñu bëgg ko su leen neexee ak su leen naqaree. Hmm. yow léegi man su fekkee dem nga ba d'accord ci man. Hmm. man ma dem ba am la yow. Hmm. nga nekk sama waay dëgg. li ko dalee si sa kaw bopp bi. ba si suufu tànk yi. su ma la soxlaa ñoom ñëpp may topp mu neex leen mu naqari leen su ma la lañ dem rek ñëpp topp ma. mu neex leen mu naqari leen. kon bàyyi dafa bëgg jàngal rek yow fexeel booy ñëw ci waa ji. fexeel am waa ji rek. kon nag koy ut utal yàlla. gi nga soo amee yàlla ki ak ki d'accord tëj yee moo tax benn waaye dafa ñëw keroog seet seet si ma hmm. bi mu ñëwee seet soxla samay garab bi mu dikkee ma ne ko am am di nga am bàyyi moo la may lii garab yi dama koy jaay waaye dama la koy may hmm. mu ne ma waaw ma ko teg si dama la koy may ànd ak mbégte ma ne ko li mooy am yàlla hmm. mu neex ma mu naqari ma ndax ma la koy may par la parce que da ngaa nekk taal yu bàyyi te da ngaa dugg kon fexeel am waa ji soo amee waa ji. gis nga mm. élément yi mm. su leen neexee su leen naqaree da leen da nga li moo mm. tax waaj bàyyi mu ne nañ ut yàlla. Mm-hmm. mu ne dem na ba gis ne yàllaa ko doy. Mm-hmm. waaye bu dee loxo rek nga am ci waaj. Mm-hmm. bi bu bu nelaw jotee loxo amatu njariñ. bu nelaw jotee loxo amatu njariñ kon mën na njariñ la amati. su fekkee ne biir bi rek ci am. sëriñ bi bu tiitaa nga ñëwee wala naqar ñëw biir bi ba njariñ la amati. kon fexeel am waaj yi soo ko fekkee mu mer lu mer mer mer bu la gisee giif parce que koo am.

lii moo tax bàyyi na nañ ut yàlla soo xasee am yàlla gis nga ci àddina bi ba mu teg kum neex kum naqari. Hmm. foo jublu rek da gis yàlla yombal foofa daf la fay jiitu. <laughs> tigi leer na nañ hmm. yii lañ amoon comme question yoo xam ne pour nga laajee ñu ko biir. Hmm. ci waxu pour ñu laaxante ci biir pour ñu laaxante ci biir. <laughs> waaye fawqa kulli say say in ilmun alim ñun moom. kulli zi ilmun alim laay wax. Euh, ñun moom fii ñu toog ak ci euh, xam-xam yi nga xam ne nii dégg nañ ko si bàyyi loolu lëntoon nañu si waaye alhamdulilah am nañ sukkandiku pour am ci luñ langaan ba mën a xam lan mooy jubluwaay bi tigi ndax bàyyi waxam de dafa am zaahir am baatin am baatin baatin kon zaahir bi bu baatin moom wax naa man du ko wax ci internet. alhamdulilah. waaw li may mën a vérifier gis Ah, kon yaa ko am am xel mu dal rek ak sell rek teewlu waxi bàyyi rek da mën a xam ne bàyyi li muy wax njëriñ la pour yow. Mhm. njëriñ la pour ñëpp. waaw mhm. ah, bàyyi waxam saa la baatin baatin baatin. alhamdulilah rek ñëpp a nii di la seetaan ah, déglu nañ li nga wax. si wàllu li may wax rek di ko dénk ko dénk sama bopp. Mhm. mooy nañ di teewlu seytaan xam benn ennemi lañ am sur terre. muy seytaane ñun ñëpp ay mbokk lañ. ñu jullit ñi ay mbokk lañ. moo xam jullit bu nekk Soudan. wala jullit bu nekk Pakistan wala bu nekk Trinidad. wala bu nekk ca ginnaaw Chine. suñ bokk la bi ne ci suñ wet sa waxatuñ ko yàlla moo ko wax innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaxalnaakum suxooban wa qabaila li taxaarafu inna akramakum indallaahi atqaakum ngëneel gaa nga nekk ci ragal yàlla la te ragal yàlla nag mooy bàyyi tere yi topp ci topp digal lii lañ fi dee ragal yàlla ci lu feeñ ak wax dëgg ci lu feeñ ak ci lu li may ragal yàlla kon ànd ak waliyu yàlla dina la may ba nga egg ci maqaama ragal yàlla hmm? taqwa maqaama la hmm. bàyyi firi ne ko ca manazil l'islam liman ak lisan taqwa ca l'islam taqwa la istiqaamatu ak hmm. ah, ah, tawbatu istiqaamatu ak taqwa taqwa mooy maqaama ba gën a kawe ba weeru koor nga am un mois xiif soo nga am maqaama taqwa yàlla moo ko wax wàccee nañ weeru koor comme ni nga ko wàccee ca xeet yi lañ jiitoon laxaalakum tattaqoon ngir lan ngeen am ak ragal yàlla pour ngeen xam maqaama taqwaa nu mel hmm? kutiba hmm. alaykum siyaam kama kutiba ala lazina min qab min qablikum laalakum tattaqoon hmm. ñun ñaa ñun ñoo wàccee weer koor ci yéen comme ñu ko wàccee woon ca xeet yi leen jiitu woon ngir lan ngeen am taqwa nga ñëw ci bàyyi ñes asalaamaaleykum mu yëgale ci maqaama taqwa fa ngay déparé te bàyyi ñes ñaare tawbatu la ñuy déparé ca maarifatu la ñuy am ñun waaye yonent yi ñu ngi déparé liimaan ñu nga am ca nubboo ak risaala moo tax yonte yàlla ma ba mu waxee yàlla rabbi arini kayfa tuhyil mawtaa qaala awalam tu'min qaalu balaa walaakin liyatma'inna qalbi kooku ma ngay laaj ihsaanul iman hmm. la doon demandé yàlla hmm. fa xus arbaata mina tayri yàlla da ko jàppal ñeenti ñanaaw hmm. gaa yii jàppaleen loolu junj bu kawe la li lay wan ne junj bu kawe la mooy ba mu ko waxee jàppal ñeenti ñanaaw rey leen nga teg leen ci ay doj doj ci maari ko am na lu muy junj mu ne suma doomu yaati nag sa sa xel nga woo leen ñoom dinañ ñoo uyu la picc du dox. picc day naaw naaw la ndëkkee dox la mujjee. Mm-hmm. kon foofu ay di ñuy kawe digg digg rek mooy loolu xaarit yee ko moom. Mm-hmm. alhamdulilah euh, beneen yoon di wax euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna mm-hmm. si musiba bu rëy bi nga xam ne ni dal na si suñ kaw musiba de si ñun baay kër baay waaw déedéet bu dee dee la moom du musiba waaye comme si internet lañ toog di wax ay internet ñu newuñ ci internet ñun ci yàlla lañ de <laughs> yaa ngi si waaw a gën internet. li nga xam ne dal na si suñ kaw. moo xam xéwal la wala musiba la. Ah, muy waliyu yàlla bu rëy bu mag boobu nga xam ne moo. génn kenn kenn bokkoon ci kenn diine yi gën a mag. Mm-hmm. rawatina si faydu Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ak ci tariqa tijaan bi euh, muy ak lislaam bi muy Cheikh Abdou Wilane radiyallahu nekk fële ca nekkoon fële ca Kaffrine wallaay ndeysaan mm-hmm. euh, di muxaddamu bàyyi boo xam ne mbëggeelam ci bàyyi amul kem kenn mënu ko nattable jeex si bàyyi bëgg bàyyi mbëggeel goo xam ne nii ku dégg turam dégg nga la mooy abdu Barhamu dégg nga Sénégambia liggéeyal Baye Niass liggéey boo xam ne néew na nga gis mu muqaddamu Baye bu ko liggéeyal bàyyi fii ci Sénégal donte ñëpp baax nañ nag ñëpp liggéeykati Baye la waaye am na yitte ci Baye ndax moom moo fi toll fi mu toll nii di ko ñaan yàlla yàlla yërëm ko xare di la ko jaale nag di ko jaale waa Sénégal yëpp di la wax yow tamit lakka ngay jaale waa Sénégal waaw sant xam ne génn àddina mm-hmm. dañ koo ñee na ci liggéeyal Baye dee na ci ñëpp seede ko ne taalib Baye la dee na ci biir diwaanu Eh, eh, eh, ibrahimiya ci biir xadaratu ibrahim yi la génne àddina hmm. te loolu garanti bu rëy hmm. man damay wax ne hmm. waxuma doomi bàyyi waxuma bàyyi taalibe bàyyi laa wax ku gis xaal dina ngay dem waxuma sax ngay yow nga ne taalibe bàyyi yow gisal taalibe bàyyi rek yow xaal dina ngay dem texe nga yàlla du yàlla du gis du lakk ku ku ku gis taalibe bàyyi loolu nag débat la boo xam ne bu rëy nag waaye ah, nag am na ay lay yu bëri yu ma bëgg a lay. yéen hmm. ci ah lu waxtaan spécial la. Uh-huh. moo tax taalibe Baay nag maqaam bu mu nekk ban maqaam la gis nga boo demee conseil de ministres bu ñu fa dajee. Hmm. foofu nekk fa député fa njëriñ. Mm-hmm. yaa ngi dégg nekk fa hmm. maire dafa jëriñ dara. député foofu président ak ministre yi ñoo fa kawe. di daayira bii loolu la. Mm-hmm. mën ngaa nekk maire ci beneen dëkk am na fa njëriñ ca dëkk ba waaye boo ñëwee ci conseil des ministres boo fa nekkee maire dañ lay wax xaaral ba ministre yi pare. moo tax moo tax kër baay foofu la fataka fataka fataka waaja foofu la wàcc kanoon yëble yëble du di moom fata teew mm-hmm. <laughs> kon xam nga am naa ci ay lay mm-hmm. yu bari yoo xam ne mën nañ koo lay ci sunna ci alxuraan ak ci batin mm-hmm. ko taaliba baay bi ne xittiwoo baay xittiwoo yàlla xittiwoo yonent ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñii ñooy ay soxlaam ñoom mooy mission Abdou Barhama yàlla wax na ci alquran innal xasanaati si sayyiaati mhm. am na ci ñenn ñoo xam ne am na ci yenn yoo xam ne gisoon nañ ko ci moom mu ko doon jëfandikoo muy tëgg ma xam nañ ci gaa man ànduma ci hmm. ndax man lu bàyyi sunna lu tun ànduma ci hmm. <sighs> waaye gis nga jëf ju baax hmm. du jot a jëf jëfu safaan dara dara dara kon moom ak liggéeyam ci bàyyi yàlla dana ko ko fay yàlla ko gën a maandu moo ko gën a tabe te bàyyi képp ku ko liggéeyal da texe te maa ngi tàllal loxo ñëpp ñu àndoon ak moom hmm. ñu teg bagage yooyu te taxawal sunna si bàyyi doon taxawal hmm. man loolu laay wax hmm. te wax nit ne leen kii bu ñu am benn xalaat moom ku texee la alhamdulilah ku texe la parce que bëgg bàyyi nas bu kenn du ko def lu dul dangaa texe bàyyi boo ko woo ba ma yuhibu nii waman yaraani fi janatul xuldi bi laa waxtaan is ana ni xalifatu tijaani ma xiba tamit ahmad adnaani waaye lisaan bi mu ko utilisé foofu dafa dafa jara taxaw xool ko ñu am na ñu ci gëlëm. Hmm. ci wax jooju. Hmm. waaye ci lisaanu bi ci gémmiñ gi mu génnee foofu moom ku lu fa jaar rek sawaab la. kon bàyyi euh, Cheikh Abdou Bilal maa ngi koy jaale Sénégal. Hmm. di ko ñaanal yàlla njëggalam. maa ngi koy ñaanal yàlla xal jannal firdawsi. yal na ko fa yàlla yóbbu. te yal na ko yàlla jéggal ay bakkaaram. yal ko yàlla xare aljanna yàlla na ko yàlla tabbal aljanna. te am nañu rafet jot ci yàlla ne. moo ñu gën a baax. te moo ñu gën a tabe te lu ñu yéene texe hmm. yàlla moo ñu ko a tabe te yàlla buñ ko ko éenee rek yàlla dana ko defal hmm. kon ñu ngi koy ñaanal loolu yàllaa ko gën moo ñu gën hmm. fam ko féete woon yàlla yàlla na ko fa yàlla féete su ko fa yàlla féetee danañu fàtte fam ñu féete woon yàlla ñu fi yàlla féetee suñu fi yàlla féetee ñu fàtte ko kon moo tax dégg du musiba julit ñi buñ deexee dem aljana amul problème bàyyi dafa wax ne bàyyi dafa wax ne euh, euh, illa allazina qaddamu yanaalu muraadu saxatukum al maam man xaasa xayaana saxaada xayaanan wa man maata yafus fasaaka kula zaman wal mawtu laa yudri liman qad saxada baraatu liman qad saxada su fekkee de juumuma ci béyti bi yàqu ma ko bàyyi bu ne ñi may liggéeyal ñépp jot nañ seen càkku téef ci dund seede nañ ko ñi dee texe la te dee texe ku texe dee du musiba ci yow te koo xam ne julit la woon ñaata kaang la ab Cheikh Abdou Barhama tëriloo ci alquran ñaata nit la ak Cheikh Abdou Barhama dugal ñu nekk ay kaang nekk ay boromi xam-xam nekk ay kan fóore mokkal alxuraan wa tokkate ay xale ñaata sëy la Abdou Barhama takk man dem naa gàmmam gàmmam boo bët settee jotee lu mu néew néew danañ fa takk ñaar fukki sëy xale ya fay tëri alxuraan lu mu di mon mon lu mu tiwtu dana man fanweeri xale wala lu mat juróom fukki xale wala téeméeri xale wala mu teg ko ñun ñëpp dañuy tëri alxuraan te yoon saa saa dafa wax ni hmm. fexe ba benn nit jubee ci sa loxo moo gën li jant bi tiim ca penku ba sa sowu ñaata nit ñoo jubee ci loxoom ñaata nit la dugal mbëggeelu Cheikh Ibrahim na si seen xol ñaata ñaata nit la tuubal duggal leen ci lislaam hmm. ñaata doomi jullit la dimbale bañ mot wattu alquran ba seytaane mënut leen a fëkk te dënn bu alquran ne booba dënn mucc na seytaane mënut ci dara hmm. kon kii liggéeyam bi bokkut ak waxam ji hmm. ak sàqam baay bi sàqam baay bi waxatuñ ko kenn mënu ko ci liggéeyam baay jël xalalam def ko ci baay te baay moo waxoon Seydi Aliou Cissé ne ko yow Seydi Aliou Cissé waxal taalibe ñu liggéeyal ma a kawe liggéeyal man loolu déggoon na ko te jëfewoon na ko ñun bokkoon nañ ci ñu daan dajale alal di ko jox mu yóbbu ci saqambaay ma hmm. def hmm. nañ ko du benn at du ñaari at du ñeenti ñetti at hmm. waaye nag jëf di ko wax amul njëriñ waaye moom jàngaloon na taalibe bàyyi liggéeyal njabootu bàyyi maa ngi wax sama vidéo yi leen dañu dem liggéeyal taalibe bàyyi njabootu bàyyi ñu dajale at yi dem jox leen ko xamuñ lu ci nekk suñ ko xamoon sëñ bi duñ ko tardé te duñ ko saggane kon nañ góorgóorlu roy ko ci jëfam yu rafet yooyu am mbëggeelu bàyyi googu mu xamoon ak jaar-jaaram yu kawe yooyu mu amoon. ñu roy ko ci cat bàyyi xel na ñii ñoo suñu ay référence liggéey ci bàyyi liggéey joxe waaye wax rek. man ma ci loolu wax day ànd ak jëf. bàyyi may waxoon na ko wax doyatuñu. doyatuñu ci gouverneur. doyatuñu ci am ministre. waaw wax luy xamal xamal rek ak wax luy xamal. li hmm. ñu li ñu lee ñu rey. mu ne ta mu ne taayoo boo xam ne sëriñ bi xamul lu dul ab tool. nga nawet ba nawet bi wàcc mënoo jël benn àllarba yóbbul ko ci tool def xëyale ko sëriñ bi ci tool ba hmm. soo waxee dëgg naa mën a dangu dakkaruma soo waxee dëggu naa ne nanguwuma kon toolam baay bi mooy njabootam bi nañ ci bu ñu amul sax duñu bu xëy si nañ am boo xam ne dañu ko xëy dem xëyale ko bàyyi ci nawet bi xanaa ci njabootam gi hmm. kon taalibe bàyyi di maa ngi leen di invité ñu roy ci Abdou Barhama ci lii nga xam ne moom la taxaw doon ko def mooy xaqam baay bi liggéeyal njabootu baay gi mokk ci seen ron hmm. bu leen gisee gis na gis na ay sangam taalibe Baay nii lay mel taalibe Baay day day suufeel boppam ci njabootu ay ron njabootu Baay kon Abdou Barhama moomu tey ñun dañ koo ñee ndax liggéey gi liggéey ci Baay xam nañ de defaguñ ko te te woon nañ def lu mel ni lam def wala ñu def ëpp lam kon nag yàlla ñu ko yàlla may hmm. kàttan loolu hmm. di dalal njabootam na leen bàyyi mu uuf taalibe yi du Abdou Barhama Abdou Barhama dafa am lef lu ko waaye bàyyi dénkoon bàyyi dana ko matal ku ku bàyyi dénk nga matal ko bàyyi dina tax dala taxaw sa ginnaaw te bàyyi moo ko wax boo demee ba sama fàddu ak sama teewaay am ci yow mu ne loolu tegtal na dëggu tegtal na ixlaas kon nag nañ ne dalal seen xel ñu dalal seen xel ci ne Abdou Barham yàllaa ko yoroon te yàllaa ko gën yàllaa ñu gën kon nag fam leen yaa fam leen féete woon daal dana leen ko féete sax leen si nekkoon rek mooy sunna baay bi nekkoon sunna si nga xam ne moom la bàyyi awa awoon tànka mu xaw ca ngeen roy ko ca loola kon man loolu laay dénkaane parce que nag man du ma far ci loo xam ne bàyyi new coow doon te Abdou Barhama la yàlla may na ko lu ko may may na ko may yépp waaye ànd naa ci daal jëf yu rafet yi doon def mbaax kam doon def tëgg mi nañ ko teg am nañ possibilité teg ko kal tegkal sunna bàyyi yàqu dara waxuma pour polémique waxuma pour yàq waaye damaa xam ne samay mbokk ngeen hmm. te say mbokk laa su ma neewoon ci loo xam ne du noonu da ngeen ma ci dimbale su ma su ngeen nekkee ci loo xam ne sama gis-gis bu ci noonu ma dimbale leen ci du ak rëy du ak jàdd du dellu ginnaaw du yàq waaye yokkute lay doon ci yéen yokkute lay doon ci yéen njariñ lay doon ci yéen kon lii laa leen di wax lii laa leen di ñaan maa ngi leen ci maa ngi leen ci wax waa maa ngi lay maa ngi lay oo léegi damaa nekk émi ci kii direct ni ma paree yaa ngi dégg kon lii laay laay laay wax di ko jàlle Sénégal di wax na ñàkk nañ ñàkk nañ koo xam ne état xam nañ kan lañ ñàkk sëriñ si xam nañ ku ñàkk taalibe yi xam nañ ku ñàkk ñàkk lañu rëy mag ñi fi des nañ leen fonk nañ leen téye kon na maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla nañu yàlla may tawfiix ci barke yonent yàlla Muhammad salaa salaam maa ngi leen koy jaale di ko jàlle Sénégal di ko jàlle àddina bi yëpp yal na ko yàlla yërëm jéggal ko yal na ñu fi yàlla yàggal di ko jàlle xalifa bi di ko jàlle njabootu baay di ko jàlle taaliba baay di leen wax ne alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa